Sénégal Bonjour et bon réveil matinal à tous. Merci de choisir l'RL TV et l'RL FM pour vous informer, mais surtout d'être au rendez-vous tous les matins à partir de 7 Nous sommes le lundi 10 J'espère que vous avez passé un bon week et nous vous souhaitons à tous un très beau début de semaine. C'est parti pour le premier numéro de C'est clair de la semaine. On enchaîne tout de suite avec la ligne de journaux parue ce Avec moi sur ce plateau, Birahim Touré. Bonjour Birahim. Bonjour Tala, bonjour cher mm. bonjour également à Lamine Senghor et à l'ensemble des éditeurs de l'RL FM. Téléspectateurs de l'RL TV et également les internautes qui nous suivent sur euh, l'RL.net et sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube entre autres. Bon réveil matinal et bon début de semaine à toutes et à tous. Oui, euh, J'ai dormi, j'ai rêvé, je me suis réveillé et je suis aujourd'hui là. J'espère que c'était le cas pour tout le monde en tout cas yàlla baax na sant yàlla yàlla baax bonjour à toi. bonjour aussi à toi Diana bonjour au DG. bonjour, bonjour à Al Amine et à tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui nous suivent sur nos plateformes digitales et aussi à travers la télé et la radio tout le monde bon début de semaine à tous euh, et euh, une semaine très fructueuse. Bien reposée, j'espère. Oui, aussi, aussi. Je me suis ah, bien reposée. C'est très beau hein, aujourd'hui. Hein. Ça veut dire oui, qu'il a... il est passé chez le coiffeur. Merci. Hein. C'est ça, il est passé. Donc demain, j'irai chez le coiffeur. Voilà. Aussi, Elamine Senghor également. tu vas amener Ibrahim Elamine Senghor. Elamine, d'elle qui... del topp Cheikh Moi, j'irai pas avec Birahim Touré. Moi, j'irai pas avec Birahim Delta Pouchère. Bonjour. Ah, bonjour, merci. Bonjour, la Bonjour à toi, Tchalaloum. Bonjour, Birahim Touré. Bonjour à Chandium. Bonjour encore une fois à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous suivent à travers nos euh, plateformes digitales. Comme vous l'avais dit, euh, heureux lundi et euh, début de semaine à toutes et à tous, comme j'ai l'habitude de le faire à chaque fois. Donc, j'associe mon bonjour à celui de Birahim Touré. Ça va, on a essayé de, de faire aller. Ça va, on est là. On démarre la une des journaux Senghor. Vous l'avez dit, Tchaloum, avec donc euh, la parution du jour euh, ce matin, bien entendu avec la complicité de la région, on va démarrer avec le journal euh, L'Observateur du groupe GFM, qui parle de la situation qui s'est passée euh, ce week-end à Prison de Bourg, bataille salornale ou bien donc euh, sanglante entre garde du corps de Sonko et des gangsters. C'est ce qu'a parlé le journal ce matin, le président Macky Sall, donc au niveau de la page de ce journal, le président à vider Euh, ses tâches sur le maquillage, a parlé le journal de ce matin, rapport de la Cour des comptes, les 1000 milliards de francs CFA donc du Covid-19, il faut le rappeler.

Euh, donc a parlé ou bien est allé défendre ce euh, euh, ou bien approximativement justement euh, s'élève donc à 7 000 milliards de francs CFA. Un expert en a parlé la non de Macky Sall en 2024. Le Parti socialiste vers l'implosion bien sûr lors de l'autre lors de, euh, du réunion du secrétariat exécutif euh, jeudi dernier. Parmi eux, euh, certains disaient donc que le parti doit justement donc faire une pause pour voir donc l'avenir du Parti socialiste dans quoi dans la scène politique du Sénégal et d'autres pas, d'autres disaient que le parti n'aura pas de candidat, que le Parti socialiste va donc continuer son ancrage au de la coalition Benno Bokk Yakaar d'où justement le a parlé ce matin euh, en tout cas d'ici 2024 point d'interrogation euh, c'est donc une interrogation on en saura quelque chose d'ici 2024 ou bien même au-delà de 2024 de le jour euh, le journal deux minutes pour lire l'essentiel qui parle aussi enfin, c'est ce qu'a parlé le journal de ce matin euh, pour faire donc euh, le leader de PASTEF, Ousmane Sonko et donc euh, Macky Sall. Vous, vous vous souvenez bien entendu de cette image quand, le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, s'est rendu au niveau donc du palais présidentiel, lorsque, faut le dire, le président Macky Sall lui-même a appelé toutes les forces vives de la nation pour venir donc faire un bloc et faire face

non à la candidature du, du en tout cas à la candidature du président Macky Sall, il n'y aura pas de troisième candidature ou de troisième mandat au Sénégal. Cette fois-ci, euh, le combat est gagné, mais selon la guerre n'est pas encore gagnée et ça, fait partie des combats qui vont faire gagner la guerre. Euh, c'est la libération des détenus politiques. Détenus politiques, politique et qui n'est pas puisqu'il y a eu euh, on a parlé d'un chiffre de près de personnes qui sont présentement dans les, différentes euh, euh, prison au Sénégal, entre autres. Mais qui a été arrêté euh, C'est à, à, la justice de, de déterminer euh, finalement s'il s'agit de détenus politiques, s'il s'agit de casseurs, de brigands, de violeurs euh, ou de, euh, de, de, simples manifestants peut-être qui ont été embarqués par euh, les forces de défense et de sécurité au détour d'une manifestation. Mais est-ce que ces manifestants avaient, par exemple, pour une bonne partie, une conviction dite politique Est-ce que ces manifestants ont manifesté pour mmh. des causes politiques ou est-ce que euh, certains se sont tout simplement euh, euh, euh, ont profité plutôt d'une certaine situation, euh, disons, chaotique pour mm. exercer des choses pas du tout catholiques. on a vu des gens s'attaquer à des commerces. Est-ce que ceux qui s'attaquent à des commerces ou qui brûlent les stations sont vus comme des manifestants politiques ou juste comme euh, des, euh, disons, euh, excusez le terme, des mm. vagabonds ou en tout cas euh, des, des, agresseurs. On a vu des gens annoncer qu'il y a eu des, des, filles qui ont été violées durant oui. Mm. cette, euh, cette, euh, cette, situation assez chaotique au Sénégal. Est-ce que ce sont ces violeurs ou ces personnes qui sont... Parce que tous sont présumés innocents oui. Mm. jusqu'à ce qu'il y ait, bien entendu, un, un jugement. Mais est-ce que ces présumés violeurs ou ces présumés casseurs peuvent être vus comme des détenus politiques, il faudrait savoir qu'est-ce qu'un détenu politique. Un mm-hmm. détenu politique, souvent, c'est un, c'est un, c'est un détenu qui a été arrêté mm. pour ses opinions, très souvent. Et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis euh, l'ère de... Euh, depuis, depuis euh, euh, Léopold Sédar Senghor, en tout cas pour ce qui concerne le Sénégal. Mm-hmm. On a vu des gens arrêtés euh, sous le régime de Senghor, peut-être sous Diouf, Euh, peut-être même sous Wade qu'on pourrait euh, dire sous Macky Sall aussi euh, qu'on pourrait définir comme des détenus politiques mhm. parce que ayant peut-être des opinions disons différentes de ceux du ou celles plutôt du régime en place certains journalistes se sont vus comme des détenus politiques mm -hmm. parce que ayant eu euh, des propos euh, que certains n'ont pas trop aimés de l'autre côté à mm -hmm. savoir du régime mais un casseur un pilleur euh, un violeur ou présumé mm. pour ne citer que ces différents délits est-ce qu'on peut les associer à des détenus politiques je pense qu'ils ont trouvé une opportunité dans le champ politique ou dans une manifestation qui devait être politique mm. pour euh, peut-être faire autre chose maintenant c'est à la justice je reste convaincu mm. d'une chose c'est notre que la justice elle est indépendante et elle saura identifier qui est détenu mm -hmm. dit politique mm -hmm. ou qui euh, politique euh, c'est peut ça l'interrogation le F24 est dans son rôle l'opposition de manière générale est dans son rôle pour pouvoir euh, faire en mhm. sorte mm -hmm. que euh, plusieurs personnes qui ont euh, par exemple mhm. quelqu'un comme Bassirou Diomaye Faye comme à un détenu politique, parce que si ce n'était peut-être son appartenance à un parti politique, à savoir le parti PASTEF, quels que soient les propos qu'il aurait tenus ou qu'il a tenus, euh, si ce n'était un autre, si c'était peut-être un autre qui n'est ne, pas de PASTEF, mm-hmm. euh, on, on, aurait passé l'éponge, comme on dit, parce que certains ont dit pire que ce qu'il a eu à dire. Euh, D'autres personnes ont été arrêtées euh, parce que étant membre d'une coalition, mais on peut être membre d'un parti politique et faire des actes qui sont euh, répréhensibles et euh, qui euh, peuvent nous amener en prison. Euh, ceux qui ont été arrêtés, soi-disant parce qu'ils ont préparé des cocktails Molotov, mmh. même si membres d'un parti politique, ce ne sont pas des détenus politiques. Mmh. Ce sont des gens qui ont été arrêtés pour des faits euh, que certains peuvent juger criminels, à la limite même terroristes. euh, il faut laisser à la justice la liberté et surtout euh, mhm. le droit de pouvoir euh, juger ces mhm. différentes personnes et dans le choix qu'il y aura dans euh, ces différentes personnes à juger, il y aura certains sûrement qui seront libérés parce que peut-être euh, pour des euh, opinions, disons, mhm. politiques ou pour des faits euh, que l'on peut associer à la politique, mais il y en a d'autres qui devraient tout simplement subir la justice parce que ayant eu des comportements ou euh, préparant des actes qui sont à l'encontre même de la politique. Euh, politique, mais Brahim l'a dit, euh, c'est important de le souligner aussi, qui est détenu politique et qui ne l'est pas. Oui, effectivement, c'est mm. très important de le souligner parce que <clears throat> parmi, euh, dans les manifestations qui ont mm. éclaté euh, le mois dernier, il y a mm. eu euh, des vagues d'arrestations euh, et aussi des vagues d'arrestations hors les manifestations parce qu'il y a eu aussi euh, des personnes euh, faisant partie de, de, de, de partis politiques et qui incarnent une certaine classe politique euh, qui aussi ont été arrêtées par rapport à leur à des posts sur Facebook, etc. Donc peut-être, que peut-être quand Bougan parle de détenus politiques, c'est plus par rapport à cela. Mais si toutefois Bougan parle de ces gens-là qui euh, sont numéro un ou deux ou trois de parti, après les autres euh, qu'est-ce qu'on a quest fait de de, de de de des autres maintenant est-ce que les autres sont des détenus politiques ou des détenus tout court qui ont participé à des événements non autorisés et qui ont contribué ou ont participé à des casses etc après on peut pas comprendre on, ou ne pas faire la différence entre qui est détenu politique ou pas et comme Birame l'a dit il faut après laisser euh, l'appréciation à la justice qui qui peut Euh, bel et bien déterminer qui est détenu politique ou qui ne l'est pas. D'accord. On continue Senghor. Bien par rapport à des situations, au même moment que certains de l'opposition sénégalaise est en train de faire focus sur le président Macky lui, est en train de continuer ses réalisations. Euh, le journal euh, Le Soleil en a parlé ce matin, nouvelle euh, euh donc aérogare de l'AIBD. Nouvelle étape pour le théâtre, bien entendu, le train express régional. Et donc, en tout cas, euh, le président Macky lui-même, en début de week-end, le samedi dernier, est allé donc au niveau de Diamniadio pour

Ah, vous le savez donc euh, justement euh, de la Guinée euh, qui sont des en tout cas des des pays qui entre guillemets sont gérés par des gouvernements de transition sous c'était donc des points qui étaient donc détaillés au niveau donc de ce sommet de de la CEDEAO qui s'est tenu hier au niveau de la Guinée-Bissau où je rappelle le président Macky a pris part par rapport à cette situation justement euh, donc hier tout ce qui est cas diplomatie tout ce qui est démocratie en Afrique

contournable ou incontournable euh, dans son cas comme dans l'opposition euh, puisque même dans son cas beaucoup de personnes euh, je dirais même avait déjà investi le président Macky Sall. Je dirais même pas on le souhait, en tout cas, euh, de, de, que le président Macky puisse continuer son travail. Et dans l'opposition, beaucoup de personnes se parlent de lui euh, dans leur débat politique, entre autres. C'est le président Macky qui est au, tout cas au centre des débats politiques. Pourquoi est-il incontournable, le président Macky autant au niveau de l'opposition, autant au niveau euh, de la coalition majoritaire, autant même, du pouvoir Un sport avec donc euh, la complicité de la régie, nous en parlons ce matin. Euh, vous le voyez donc, Sely euh, le gardien de l'équipe nationale du Sénégal, il de Championship Il a finalement signé donc dans un autre club. Il s'agit cette donc tout cas d'un autre défi que le jeune Sénégalais, le gardien de l'équipe nationale du Sénégal, va donc tout cas aller faire. C'est en même temps le club et aussi même en Championship Angleterre. Donc c'est un défi que le

finir Senghor y a titre ce matin Bayern Sadio Mané poussé vers la sortie. Euh, Sadio Mané poussé la sortie. Euh, mmh. Ce qui est sûr, c'est que Sadio, euh, pour l'instant, il vit des moments compliqués au niveau de, son, de ce club, donc le Bayern Munich. Euh, est-ce qu'il est, poussé vers la sortie par qui par le club mhm. exactement ou bien par les dirigeants du club euh, ce qui est sûr c'est que euh, il faut le dire le jeune sénégalais euh, le jeune de Bambali Sadio Mané le numéro 10 du Sénégal numéro 17 du Bayern Munich mhm. lui-même euh, veut et continuera en tout cas de rester En tout cas, son souhait, c'est de rester au Bayern Munich pour faire le défi. Et le défi, c'est quoi? C'est de montrer, en tout cas, au monde entier, qu'il a le niveau de pouvoir jouer au Bayern Munich, malgré, qu'il y a donc un effectif exceptionnel, au niveau du Bayern Munich, même si, encore une fois, il faut le rappeler, euh, l'Arabie Saoudite est, a fait, euh, est en train de, euh, de faire euh, tout son possible pour justement donc le numéro donc sénégalais à son championnat mais Sadio Mané en tout cas à, moi, à mes Son souhait, c'est de rester au Bayern de Munich. Merci à toi, Lamine Senghor. C'était la ligne des journaux Paris, Céline On enchaîne tout de suite avec le journal. de chefs euh, d'État dont le président Macky Sall a participé à la cérémonie d'ouverture de la 103e session extraordinaire de la la CEDEAO. Les acquis démocratiques du Sénégal ont servi d'exemple pour l'ouverture de ce sommet. Le dialogue national réussi et la non-candidature du président euh, Macky Sall la prochaine présidentielle ont été magnifiés lors de cette rencontre. Les transitions au Mali, en Guinée et au Burkina Faso étaient également à l'ordre du jour, indique

intervenu récemment au Sénégal lors euh, des manifestations lors de son assemblée générale. Hier, les membres ont saisi l'occasion pour euh, saluer la décision du président euh, Macky de ne pas briguer un troisième mandat. La Ligue démocratique demande l'ouverture d'une enquête afin de punir les coupables responsables de la mort de plusieurs jeunes lors des récentes manifestations. Nous écoutons Penda Sekdien, ancienne députée au micro de Nyanyaka. Approfondi. Le secrétariat permanent élargi Revenant sur le message à la nation du chef de l'État le 3 juillet 2023, a pris acte de la décision du président Macky Sall de ne pas présenter sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Appréciant la portée historique de cet acte, le secrétariat exécutif permanent élargi a rendu un vibrant hommage au président Macky Sall pour exemple de démocratie de respect de la analysant l'œuvre colossale du président de la République depuis 2012, le CEP élargi a noté avec satisfaction le bilan élogieux des politiques publiques dans tous les domaines au bénéfice des populations. Il adresse ses félicitations au chef pour le succès de ses actions au Sénégal, en Afrique dans le monde entier. Revenant sur les émeutes du 1 et 2 juin 2023, le CEP élargi de la LD a condamné vigoureusement les saccages de biens publics et privés ayant conduit, hélas, à mort d'hommes, des jeunes notamment. Il appelle les autorités compétentes à procéder à toutes les enquêtes nécessaires pour sanctionner les commanditaires et les auteurs de ces, de ces actes meurtriers conformément aux lois en vigueur dans le pays. le discours du chef de l'État Macky Sall continue d'alimenter les débats dans le département de Mbour. En effet, après le maire de Mbour, c'est au tour du maire de Malikounda, Maguessen, de saluer la grandeur du président euh, Macky Sall. Selon lui, Macky a donné une leçon de morale à la classe politique, mais il a également donné aux autres l'opportunité de mettre en avant leur expérience. Il s'est exprimé l'inauguration de santé euh, qui porte désormais le nom du président Macky Sall. Plus de détails avec Omar et Baba agréablement surpris, hein, puisque moi j'étais parmi ceux qui pensaient que le président avait beaucoup fait pour le Sénégal. On aurait souhaité qu'il continue sa mission effectivement, mais quand il prend sur lui de respecter en tout cas sa parole donnée, malgré que la Constitution en tout cas lui permette de continuer d'autres mandats, mais quand il se dit je m'arrête là et je permets à d'autres de montrer leur expérience, leur expertise, c'est une excellente leçon. qu'il a donné à toute la classe politique et nous saluons à sa juste valeur. C'est pourquoi nous avons donné, en tout cas, le poste, le poste de santé de Gagnabougou, on lui a donné le nom de Macky Sall, du président Macky Sall. Donc, euh, je crois que c'est à la suite de cette déclaration qu'on a été tellement séduit et qu'on a dit, la première infrastructure qu'on va inaugurer après cette déclaration, on va lui donner le nom du président Macky Sall. Et le poste de santé président Macky Sall justement pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait dans le domaine de la santé. Je crois que vous êtes témoin des nombreux hôpitaux qu'il a inaugurés à travers le Sénégal. Et au-delà de la santé, dans tous les domaines, il a fait un excellent travail. Donc il n'avait pas le, le, droit de faire moins au plan politique. Et je crois que là, là où son prédécesseur avait présenté une troisième candidature, lui, il a préféré en tout cas se retirer pour permettre à d'autres

Samedi 8 juillet 2023, au Kimfat de Palace, le mouvement des entreprises du Sénégal a tenu, comme à l'accoutumée, l'activité conviviale qu'il a l'habitude de célébrer. Cette année, le meilleur homme de l'année 2023 est décerné par le MEDERS au directeur général Papa Mademba Bitei, directeur général de la Sénélec. Cette 18e édition, placée sous le sceau de la persévérance pour la résilience l'Alliance économique et sociale a décerné plusieurs distinctions aux personnalités qui ont excellé dans leur secteur d'activité. Parmi celles-ci, une a retenu l'attention du public, le directeur général Papa Mademba Bitei, un manager qui s'est distingué dans l'innovation et la créativité dans le domaine énergétique. Très tôt, il a su engager Sénélec dans la conquête et dans la transformation structurelle pour la maîtrise de l'énergie de tous les possibles. rendu grâce à Allah, il a tenu à son tour à remercier vivement le président de la République Macky Sall pour sa vision éclairée et son soutien qui ont permis les réalisations constatées depuis son accession à la magistrature suprême, parmi lesquelles les fortes performances de Sénélec. Monsieur Bitey d'ajouter que l'interconnexion énergétique des pays de la CEDAO est déjà achevée depuis ce samedi 8 juillet et marquait aussi un événement historique pour Sénélec et le Bitey a aussi mis l'accent sur le rôle important joué par le personnel de la Sénélec, grâce à quoi ces prouesses ne seraient pas possibles. Il a aussi prié pour la paix dans notre cher pays et une pérennisation des acquis sur tous les plans. La cité s'opprime extension, les habitants du quartier n'en peuvent plus de cohabiter avec des tuyaux de l'ONAN. Ces derniers fustus avec énergie les eaux jugées rejetées par les canaux d'évacuation de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Ils ont organisé un sitting pour alerter les autorités sur les dangers qui les guettent. Voici Diabndao, le délégué de quartier de la cité s'opprime extension au micro d'Ibrahim Khalid C'est tu sais qu'au niveau de Suprême Extension, il n'y de réseau. On n'est pas, on n'est pas branché à l'égout. Depuis 2002, on court derrière. On n'arrive pas à avoir ça. Maintenant, ce qui se passe, on s'est on est, on est réveillé un beau jour. Ils sont venus avec un tuyau qu'ils ont branché au niveau du lac, le lac qui limite Suprême Extension. Au début, ils nous avaient dit que pour deux ou trois semaines. Maintenant, ça fait quatre Les conséquences sont nombreux. Parce qu'au niveau des lacs, il y avait des poissons. Il y avait des pêcheurs qui étaient là. Maintenant, il n'y a plus de poissons. Des menaces de santé publique. Pourquoi Parce que il suffit que, par exemple, nos bijoux, tu laisses un, euh, tu laisses un, un, par exemple, un bijou noir. Donc, étant donné que ça noircit les, les bijoux, mais nos poumons, qu'est-ce que ça va faire Si ça continue, les les les moustiques actuellement au niveau de cette première extension bon y ya y a y a un phénomène qui se passe actuellement les moustiques sont partout même au niveau de la mosquée pour prier on est de d'allumer de, de, de, des ventilos sinon pas de ventilos on ne peut pas prier sinon on risque de manger les L'association des techniciens supérieurs et manipule imagerie médicale du Sénégal est en congé scientifique pendant 12 jours à Sali, Portugal, pour euh, réfléchir à la résolution de multiples problèmes auxquels fait face la radiopédiatrie. Parmi ces problèmes, on manque de services dédiés aux enfants le, et le manque de radiopédiatres au Sénégal. Le président de l'association, Elage Souley Diopa, interpelle la Santé et de l'Action sociale, Marie-Hemes Gomdiaye. Nous l'écoutons au micro d'Omar Dia et Baba Kartial. Ces problèmes, c'est que nous n'avons pas beaucoup de spécialistes en radiopédiatrie, il n'y a pas beaucoup de médecins radiopédiatres, euh, il n'y a pas aussi beaucoup de services de, de, radiologie qui sont dédiés aux enfants. Ensuite, dans les services euh, pour adultes où on fait la radiographie des enfants, on n'a pas les moyens nécessaires, les moyens techniques pour faire correctement les radiographies des enfants. Donc c'est la raison pour laquelle. Et ensuite, les techniciens ne sont pas très bien formés en matière de radiographie des enfants. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé avec professeur Aïssatou pour que donc on améliore la manière dont la technique, les techniques de radiographie sont faites pour les, pour enfants. la radiographie chez l'enfant, c'est différent de la, la radiographie chez l'adulte. L'enfant, c'est quelqu'un qui, bouge, qu'il qu faut, donc, euh, dont, La manière d'aborder la technique de radiographie chez l'enfant, c'est différent de la manière de le faire chez, chez l'adulte. Ensuite, nous travaillons avec quoi? Avec des rayons X. Et nous savons que les rayons X sont un peu dangereux pour la santé et ce sont les enfants qui sont les plus sensibles par rapport aux rayons X. Donc il faudrait, pour faire correctement ces radiographies des enfants, sans amener beaucoup de conséquences, il faudrait avoir de contention pour que l'enfant ne bouge pas lorsqu'on et éviter quand même de répéter les examens de radiographie. Merci à vous, Fomar Ndiaye et Babacar Thiala. À présent, actualités hors de chez nous. Et c'est Sergio qui nous fait le point. Diop, sommet de la CEDEAO et président le Nigérien euh, Bolan Tinubu s'oppose au coup d'État militaire. Et eh oui, de la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est en fin de journée, dimanche 9 juillet. Bola Tinubu, a été élu à nouveau parmi ses À la tête de la CEDEAO, il entend combattre les changements anticonstitutionnels. Le président du Nigeria a résolument, est résolument contre les coups d'État et ne soutient pas l'installation de militaires au pouvoir par ce biais. Et il utilise des, morts, des mots forts, des formules choc pour lui, comme pour ses pairs, les juntes maliennes. guinéennes et maliennes doivent respecter le chronogramme de sortie de crise qu'ils ont élaboré à Bissau. Bola Tinubu a déclaré que la démocratie sera le socle de son action à la, à la tête de l'institution sous-régionale. Et pour finir, cher, attaque meurtrière dans une école maternelle dans le sud-est de la Chine. Oui, nous venons euh, d'avoir l'information, attaque meurtrière dans une école maternelle dans le sud-est de la Chine. Six personnes ont été tués et une blessée dans une attaque à couteau ce lundi matin dans une école le sud-est de la Chine. L'assaillant présumé âgé de 25 ans a été arrêté. L'attaque s'est produite ce à 7h40 heure locale selon le compte WeChat du bureau de la sécurité publique de Lianjiang dans la province au est du pays, de l'assaillant en pantalon noir et t-shirt clair poussé par les agents dans un véhicule de police ont circulé les réseaux sociaux. Le suspect est âgé de 25 ans. Il au nom de Wu. En Chine, ce sont les prénoms qui permettent de distinguer les individus et ces derniers ne sont pas révélés tant que l'affaire n'est pas jugée. On ne connaît pas les motivations du meurtrier présumé, mais selon les forces de l'ordre, il s'agit bien de blessures intentionnelles. Et c'est tout pour ces actualités internationales, Tchana. Merci à les actualités hors de chez nous et c'est tout pour le journal. La deuxième partie de C'est clair, juste après une petite pause. Yamagan ay Ay yeah Dakar day yegsi na rajo leeral rajo conducteur yi rajo taximaan yi rajo chauffeur yi 96 point 1 ci Dakar 100 point 4 Kaolack 87 point 8 Mbacké Touba 93 point 1 ca Ziguinchor rajo bi leen di gën a jegele ak xibaar rajo buy leeral ak rajo leeral léppay leer ak rajo leeral kumpa jeex na rajo ba ngeen doon xaar day si na rajo leeral rajo conducteur yi rajo taximaan yi rajo chauffeur yi 96 point 1 ci Dakar 100 point 4 Kaolack 87 point 8 Mbacké Touba 93 point 1 ca Ziguinchor rajo bi leen di gën a jegele ak xibaar rajo buy leeral ak rajo leeral léppay leer ak rajo leeral kumpa jeex na rajo Leral 96 point 1 Dakar 100 point 4 Kaolack 87 point 8 Mbacké Touba 93 point 1 Ziguinchor rajo Leral encore plus proche de l'info dama ne télé bi ngeen doon xaar tàkk na de Leral TV 100 pour cent xibaar maa ko wax te bi fépp la yegg ci Sénégal de décodeur TNT ba nag ñu ngi canal 33. Leral ay xibaar yu gaaw te wóor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 gërëm leen sant leen ci ànd bi ak programme Leral TV ak Leral FM ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax mbokk ni ñu ko defee suba su ne bu 7h euh, jotee ba 9h ànd ak yéen euh, ci euh, C'est yee leen ngir jox leen ay information tey di altine ñuy am yaakaar ni passé ngeen week-end bu neex également rek di leen ñaanal début semaine bu neex ndoxteelu semaine bu neex ngeen ànd ko ba tey ak suñu ay programme Lamine Senghor maa ngi ziar maa ngi delloo ziar bu baax ci àllalum te di ñaan ñaan bi nga ñaan mu nekk loo xamante ne nit ñi yëpp ñoo koy daal di bokk eh, ndorteelu semaine bu am solo boo xamante ne eh, ku nekk rek eh, maanaam xéwal yi dafay saawaan baawaan di ñaanal ñëpp jàmm di ko sàkku ci ñëpp asalaamaaleykum. Cheikh Diop noo def. maaleykum salaam maa ngi sant bu baax alhamdulilah boole sama nuyoo nuyoo alamin di nuyu ci di ñaanal tamit ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan di ñu déglu waaye itam di ñu topp ci lépp loo xamante ne suñuy réseau la ak plateforme. di leen ñaanal euh, semaine bu bu bu neex alhamdulilah et puis euh, aussi tamit euh, di ñaan bës bi nekk bës boo xamante ne bu am bësu koom ak bésu wérgu yaram <laughs> allahumma amin yal na yàlla nangu ñaan Birame ñu ngi ziar yàlla yàlla nangu ziar Thiala di toftal nag sama kàddu bi yoon mhm. ci Lamine Senghor Lamine Senghor <laughs> uh-huh. yaaka tey sax xam naa ni danga buggoon bëggoon mu am kii moom tamit mu am tuuti buzz donc may toftal sama kàddu ko dara ci Alamine Senghor mhm. euh, donc di nuyu ñëpp di ziar ñëpp mhm. di ñaan suñu borom may ñu altine wu jàmm semaine jàmm ah yokk xewal gi ak wërsëg ak sutura abadan daay man amiin tamit koo xamee ni moom mu ngi si telem mhm. mais euh, dafay jël téléphone am du ñu seetaan Yacine Seck ca Sen TV ñu ngi lay bu baax a baax a baax ok moom yónnee message na may ma dédicace. ma may dédicace waaye naa la tudd si suite télé bi. <laughs> koy nuyu bu baax a baax acca Lamine Senghor yaa reetaan de. bi laa commencé dund rek. Ah. <laughs> mais ana kii El Hadj Mouhamadou Mansour Diop ah ne woon dina fi nekk de. peut-être ci yoon bi di ñëw. namm nañ ko. waaw ah, kon xaytu Senghor. waaw euh, ah, bu ñëwee di bàyyi Birahim. wala lépp mën naa ne de. Hmm. Hmm. lépp mën na ne. waaw. yàlla baax na. lépp mën naa ne yàlla béy de baax na acca <laughs> seen balaa ñuy ñëw ci loolu doolal yéen a kaay ba pare ak li nga ci wàllum politique lañ koy daal di tàmbalee daanaka ay yi lu ci bëri ci ñoom daal dinañu xëy ci li nga xamante ne moom mooy euh, maanaam yéenikaay yi lu ñuy daal di xëyee ni ki euh, tey jële dooree ko nag ak yéenikaay euh, bi nga xamante nag moom la ñuy maanaam régi di tegal l' observateur moom la ñu tàmbale woon sànq ci kàllaamay nasaraan moom la ñuy daal di tàmbalee xëy na ak li nga xamante moom la xëyee nit ki tey jële moom journal bi di l' observateur xëy nag ci li nga xam moo mooy jëm ci wàllum politique ak li nga xamante ne moom mooy jamono jëlee ñu koy daal di seetlu njiitu réew bu Sénégal Macky Sall ak ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci parti wala sax coalition di Benno Bokk Yaakaar taxawaay bi nga xamante war nañ ko war a am ci atum 2024 bi ñu dégmal muy loo xamante ne jamono ji ne xel xel yu bëri ñu ngi jëm ci kan mooy wuutu Macky Sall ñu bëri daal di jàpp ne xëy na mën na doon Amadou Ba ñenn ñi jàpp ne profil la boo xamante ne war na mën a wuutu maanaam njiit réew bu Sénégal euh, Macky Sall ci li nga xamante moom la ñu dëgmal jéy jogante njiit réew atum 2024 l' observateur euh, diglu yéeni kaay bu groupe GFM daal dinay wax niki tey ji la ci euh, lépp mbir ñu wax ci beneen yéeni moom tamit daal dinay xëy wax nga xamante ne moom mooy jëm ci wàllum élection présidentielle yi ñu dëgmal deux minutes pour lire l'essentiel jàpp ne fi mu ne nii nag duel njiit réew bu Sénégal Macky Sall ak nga xamante moom mooy leader bu Pastef Ousmane Sonko jeexagul jàmbal nañ ko waaye nag fi mu ne nag moom euh, duel ba moom euh, day wéy rek di dem ci atum 2024 lañ dem ak moom xëy na ndaxte Macky Sall ci boppam euh, wala sax njiitu réew njiitu Pastef ci boppam yow daal wàccul Euh, ki nga xamante ne moom mooy kon euh, ki la di euh, Macky ci jamono yi nga xamante ne ñu ngi waajal jongante njiitu réew atum 2024 te sax ñu fàttali moom njiitu réew njiitu Pastef ci boppam waa Pastef fas yéene nañ ko daal di investir maanaam fukki fan ak juróom ci weer bi ñu nekk ci weerum sulit ngir rek mu daal di nekk seen candidat ci élection présidentielle 2024 jamono ji nga xamante ne ñu bëri ñu ngi jàpp ne ndax Sonko dina bokk am déet loolu nag nekk loo xamante ne maanaam jamono ji nag euh, lu euh, jara euh, laaj la ci ñi nga xamante moom moo jëm ci yi la mbir beneen yéenekaay moom tamit wax na ci li nga xamante moom moo jëm ci wàllum politique ak yi de di l'évidence wax ci li nga xam moom mooy Amadou Ba sànq maa ngi ko doon wax ndax moom mooy nekk plan B wala sax moom mooy nekk kii wuutu Macky Sall ci bopp APR Alliance pour la République wala sax Benno Bokk Yaakaar kon jamono ji la ñu bëri moom la ñuy daal di samp ab laaj Bougane Gueye Dany leader bu gëm sa bopp moom tamit bokk ci ñi samp seen i ndënd ci jongante ji tërëwaatum 2024 daal dinay ñëw ci boobu lépp yéen i kaay di l'évidence jàpp ne fi mu ne nii benn combat bi gagné nañ ko maanaam benn xeex bi gagné nañ ko waaye nag bokkul ne euh, dafay daañu nekk ni dañoo gagné euh, guerre bi ndaxte ñoom bokk na ci li nga moom mooy seen guerre euh, muy rek ñu daal di bàyyi ñi nga xam ne ñoom la jàppee comme ay détenus politiques yaataa ñuy dem ci loolu yéen i kaay bi lee di regard moom tamit daal dinay am lu bari loo xamante am solo loo xamante ne waxtaanee na ko ni ki tey jile ki lee di Souleymane Ndéné Ndiaye moom moo daal di addu Ah, ci boobu lépp yéen kaay di le regard moom Souleymane Ndéné Ndiaye ñu fàttali ancien premier ministre la woon waaye tamit euh, bu ñu fàttali ko sax moom moo nekkoon invité bu Birahim Touré di ber bi ñu jógee euh, ci émission am politiquement correct moom dafa indi rek ab euh, maanaam ñu jëm ci wàllum politique bi langue politique bi il faut laisser tout le monde participer à cette élection ndax mën nañu bàyyi ñëpp ñu participer ci élection présidentielle bu ñu dégmal Birahim Touré xëy na bokkoon na ci seen débat ci li nga xamante moom moo jëm. Euh, ci seen émission bi ngeen amaloon ni ki démb euh, politiquement correct euh, loolu nekk nag li nga xamante moom ci ki leen di Souleymane Ndéné Ndiaye maanaam indi na ci xëy na ab laaj ban position la amoon ci boobu lépp laaj. waaw xam nga bi ñu ko laajee dañ koy déjà gërëm ci li mu nangul waxtaan ndax gëjoon nañ ko dégg gëjoon nañ ko gis également ñu ànd ak moom ci politiquement correct mu. mu am tamit lu ñu mën a hmm. kàddu goo xam ne yëkkati na ko di ko assumer parce que après on on s'est parlé au téléphone euh, juste après l'émission euh, pour voir un peu euh, ba njàngat la ci am gannaaw bi mu ko seetaan ak yooyu xam nga émission boo xam ne da nga koy euh, da nga koy da nit ki euh, mën na am sur le coup du xam exactement waaye ba ko seetaanee moom mu toog dégluwaat ko wala mu xoolaat ko ci lay xam à peu li mu waxoon nan lañ koy jàngatee. lam njëkk ko xam ni am na ñoo xëy peut-être du leen neex. mais j'assume mu ne ko waaw euh, bon nit ki booy yëkkati kàddu da ngay assumer mais la mu wax yanu na maanaa parce que quand il dit amnistie ñu ngi def loi pour amnistier wala pour gracier wala nuñ ko mën a tuddee Karim Wade pour mu bokk ci élection Khalifa Babacar Sall pour mu bokk ci pour pourquoi pas def tamit la même chose pour euh, Ousmane Sonko pour mu bokk ci élection ba mu ko waxee ma ne ko mais est-ce que cas yi wutewul parce que ñaar nii état moo leen topp muy Karim muy euh, Khalifa Babacar Sall mais kii di Ousmane Sonko nit a ko topp muy une sénégalaise mu ne mais euh, ay la yoon ay nit a ngi fi ñoo xamee ni dañu rey nit wala ñu jiiñ leen rey nit ba àtte leen ci wàllu woowu ñu amnistie leen teewul bañ leen amnistie amnistie mooy leen mooy lépp loo xam ni weesu na wala dugg na ci boobu le dossier buñ ci waxate naka ñëpp fàtte ñu continuer la vie continue ah ay la yoon tamit nit ki tamit am na xalaatu boppam c'est un avocat c'est un ancien premier ministre c'est un homme politique boo boolee ñett yëpp mën nañ jàpp ni am na fu mu ko teg ci wàll woowu fa mu ko teg mooy lan tey mën nañu gën a am jàmm ci réewum Sénégal bu fekkee ni euh, yenn ci ay points yi nga xamee ni moom mooy indi jafe-jafe dañ ko effacer te jàpp na ni point bi ëpp importance tey wala dossier bi ëpp importance bi gën a mën a indi problème gannaaw bi nga xam ni Macky Sall moom nee na bokkutul ci euh, élection présidentielle 2024 donc am na leen lu bari lu mu wàññi ci wàllu tension boo xam ni euh, nit ñi mënoon nañ ko njort mais pour gën a wàññi tension boobu boobu le dossier muy bu am importance mooy dossier wu Ousmane Sonko mu ne nañu nañu fexe ba. boole ko ak yeneen yi muy bu Karim di di di bu Khalifa Sall fi may d'accord ak moom mooy jamonoy Karim ba ñu koy tëj ci kaso avant ñu koy tëj ci kaso indiwoon na tension Khalifa Sall indiwoon na tension donte tension bii nga xamee ni moom moo soxal mbirum Ousmane Sonko moo raw parce que peut-être ñi nekk ci ginnaawam ñoo ëpp ci jamonoy xalifa Sall wala ñoom ñoo ëpp. Euh, ci lu jëm ci wàllum présidentiel waaw xam nga muy pour Karim euh, il a été jugé condamné emprisonné boobu àgguñu woon élection. pour xalifa Sall également donte li desoon ci élection bariwul mais pour le cas de Ousmane Sonko bii moo gën a sax jege. Euh, ci lu jëm élection parce que deux mille li am deux mille vingt trois lañ ko condamné. jëm ci élection 2024 est-ce que le temps politique le temps de la justice ou en tout cas le temps bi ñu desee pour ñu jëm ci wàllug ay élection présidentielle muy 2024 am nañu jotu li jëm ci dossier boobu ba ñu mën ko toftal ci dossier wu Karim dossier wu Khalifa comme ni mu ko waxee ñoom ñëpp ñu mën leen a bàyyi ñu bokk ci ay élection mm-hmm. mais si Karim participe à des élections avec l'appareil Parti démocratique sénégalais. Mmh. Khalifa Sall participe à des élections, je dirais avec l'appareil socialiste, pas forcément parti socialiste, mais socialiste l'on me donne. Mmh. Mais euh, si euh, Ousmane Sonko doit participer réellement à des élections ak appareil bi nga xam ne moom mooy bu Pastef ak bu Yewwi Askan Wi loolu yëpp euh, c'est à l'état central peut-être au, surtout au juge constitutionnel d'en décider. C'est vrai que Euh, assemblée dina am lu mu lu mu lu mu décider ci lu jëm ci Khalifa lu jëm ci Karim mais est-ce que la ñuy tënkee loi bi la bokk ci biir loi bi est-ce que mënul laal tamit Ousmane Sonko ça peut être une une te mën na doon également loo xam ni day am parce que lépp mu ngi dépendre ci libellé loi bi ci euh, lan moo nekk ci contenu loi bi. di loi boobu nga xam ne bëgg nañ ko voter ci assemblée pour soppi. code de euh, électoral pour soppi également wala am lu ñu dugal ci constitution bi est-ce que loolu yëpp mënul laal tamit au son Sonko donte il faut rappeler qu'il n'y a pas encore une condamnation définitive pour Ousmane Sonko li tax ma ne il n'y a pas encore une condamnation définitive mooy am na ñoo def appel ci boobu li dossier wala kenn ñaar ñëpp sax def nañu appel muy Ndeye Khady Ndiaye ak euh, euh, Adji kii ci lu ñu wooyee intérêt civil yi lañ ko bëgg fay la d'accordul kenn ni man lañ ma teg ci daan moom laa d'accordul muy Ndeye Khady Ndiaye moom ci boppam di Ousmane Sonko ñaari cas de figure yi ñuy taxaw ci kanamam euh, ci li ñu ko jàngatee wala li ñu ko waxee ci wàllug yoon mooy soit mu dem constitué wu prisonnier bu boobaa dañuy tëggaat procès bi te bu ñu ko tëggaatee euh, wala beneen bi mooy euh, ñu ñu ñu jàpp ko ñu war a tëggaat aussi procès bi mais mën nañ tëggaat procès bi ne ko finalement euh, lañ la doon tuumaal yëpp dara amu ci juridiction bi di euh, euh, chambre criminelle moom moo àtte ne ni dañ lay tëj daal ñaari atu kaso pour corruption de genre boobu looy même juridiction mën na ñëw na ni bon finalement xool naa xool moom ci boppam contumax bi ñuy wooyee ki ñuy wooyee contumax mm. ñëw na parce que ñëw na boppam wala jëli nañ ko nañ koy àttewaat ma ba ñu ko àttewaatee la ma gis man euh, en tant que euh, chambre criminelle mooy ni euh, dama juum ci sama verdict su mu njëkk bi ñu niilal ko bu boobaa du soxla assemblée nationale du soxla loi bu ñuy bindaat du soxla constitution bu ñuy tëggaat day day dem bokk ci ay élection mm-hmm. mais dañuy fàtte tamit beneen mbir mooy mbirum Mame Mbaye Niang Euh, ndax daf ko tëjlu woon kaso euh, waaye donte tëju tëdd kaso amu ci mhm. mais am na daan yuñ ko teg te yooyu la daan lu mu néew néew néew jàpp nañu ni war na mën a gàllankoor ko ci dem ci ay élection mhm. mais comme le di le le le l'avocat euh, maître Souleymane Ndéné Ndiaye ancien premier ministre mhm. am na fooy toll ci réew néew ma nañu effacer lépp de mais est-ce que jarul dañ koy teg ci tontu waaw non waaw parce que. président de la moo waxoon am na dossier yoo xam ne maa ci teg sama conc parce que bu ma ko deful day indi beneen coow mais est-ce que dossier bi tamit euh, coow li déjà bariwul ba noppi. y a eu quand même des morts. sous prétexte de ce dossier. y a eu des gens qui ont euh, perdu leur euh, leur travail. sous de ce dossier am na ñoo xam ne yàq nañu seeni seen i kër lakk seen i oto. yàq ay Auchan ay station ak yooyu sous prétexte de ce dossier. ndax waruñoo fay dossier bi. ñenn ñi dañu naan non parce que accusation bi graaw na graaw boo xamee ni ka accusé donte jàpp nañu ci ñenn ñi ni dañu ko instrumentaliser mais ñeneen ñi jàpp nañu ni euh, mbir mi euh, mooy sénégalais du du yokk wala du du du du du sos du sos day yokk mm-hmm. Mm-hmm. dina am benn part de vérité mais peut-être ñu seet nu ñu koy tëggee yokk ko mm-hmm. alors c'est un dossier à mon sens extrêmement compliqué ci fii ñu toll ni ci jamono ji ñu toll. Mhm. mais c'est un dossier boo xamee ni il y va de la responsabilité de tout le monde. Mhm. responsabilité première Ousmane Sonko responsabilité peut-être de l'État du Sénégal. Mm -hmm. on parle même de d'ouvrir beneen deuxième dialogue boo xamee ni Ousmane Sonko ak euh, peut-être Macky Sall dañ foog toog. Mhm. waxtaan wala. Euh, ñu yabal yabal seen i ci dernière sortie bu mu mujjee def France 24. il euh, en tout cas dàq na bépp dialogue boo xamante ne war na ko mën a def ak Macky Sall. tous opposition comme pouvoir la wax ci kanam ci kaw ñëpp di ko dégg ak la ñuy def ci suuf du doon benn euh, damay joxe juste benn exemple Ablaye Wade il y avait pas plus opposant que lui il y pas plus opposant que lui Ablaye Wade lañ jël doomam dugal ci kaso Ablaye Wade lañ jël doomam bu jigéen ne ko réew mi ci boppam bu fi tegati si tànk ana euh, euh, nuñ koy te doomu doomu ab euh, Ablaye Wade euh, di Sindiély kenn gisutu ko kenn déggatu ko. Karim Wade est-ce que du erreur tamit Birahim ci ci Ousmane Sonko mu dem bañ a fekk waxtaan boobu muy dialogue moo tax ma ni la. Mhm. les politiciens di wax ci kaw. ak peut la muy def ci suuf. Mhm. mën naa mu wute. ak la ñuy lijjanti mais ki waxoon ni Abdoulaye Wade dina taxawaat ak Macky Sall nga xamee ni jël na doomam tëj ci kaso jël beneen doomam génn réew mi jël ay jafe-jafe teg ko ci kawam hmm. ba ñuy wax naan kër ga mu bokk ba mu dëkk euh, euh, tabaxal ko boppam am terrain beeg yëpp ci point ñu ne dañ koy nangoog duñ ko nangu téye ko ba nga xamee ni bu muy ñibbisee ci réewum Sénégal kër maître Madické Niang la dem mhm. euh, ñu mën ko héberger nuñ ko mën a waxee en attendant que këram di dampi mu dem xuloo naag mani euh, Madické enfin mhm. xuloo euh, jubootuñu mu ne dootuma duggati ci biir këram ba Madické ni man kër gii ma joxoon Ablaye Wade sama tànk araamal na foofu dootuma fa tegati sama tànk naan dama fay dëkk donte jëlul kër gi mais kooku di Ablaye Wade loolu yëpp mu dund ko teew mu mën parce que y eu benn situation bu taxaw mën a toogaat ak Macky Sall ba jël otoom taal otoom ànd ak ay nitam dem seeti Macky Sall ca de la République mhm. il ne faut jamais dire jamais en politique mhm. il a vécu des moment yoo xamee ni Ousmane Sonko a vécu de moments ou vit des moment extrêmement difficiles mhm. je suis tout à fait d'accord et c'est un constat difficile bi mooy mënoo génn sa booy julli ji sax takk der ñooy ànd ak yow ànd ak yow yóbbu la ba ca ba fa ngay jullee booy génn ñu àndat ak yow. ñu naan la dàngam ak nangam tëj sa kër ak yooyu c'est extrêmement difficile mais est-ce que bu ñuy def comparaison n'est pas raison mais defal comparaison ak Ablaye Wade lu mu dund ci kaw Macky Sall par exemple doom dafa sax si xolan ah, nga jël ko dugal ci kaso. Mm-hmm. ñu ne ay la yoon nga yemuñu ci nga génn ko ci réew mi nekk ko amtoo sax sañ-sañu woote ci réew mi ñu lay dégg ci te ñaata nit a nekk bitim réew ñuy woote ci rajo wala ci télévision ñu leen di dégg ñu ne la kër gi réew mi ci boppam bokkatoo fi mm-hmm. jël doomam bu jigéen même chose parce que nee nañu am na loo def am na loo deful c'est vrai ou c'est pas vrai Euh, justice xam na ko peut-être ñoom ñoo xam seen biir. Mm-hmm. ndax politique wala du politique ñoom ñoo xam seen biir kooku li mu dund. teewul mu xëyee mësa mën a taxawaat ak Macky Sall waxtaan ak moom. dialogue am mu mën a yebal ay nitam ca palais de la République waxtaan il ne faut jamais dire jamais en politique Ousmane Sonko quel que soit radical bi mu radical ci lu jëm ci Macky Sall ak ay ñoñam mais <laughs> Abdoulaye Wade ko gënoon radical. justement bi daan tere on du PDS de Abdoulaye et sa famille euh, avant ñuy ñuy jeexal balaa may jox euh, Cheikh parole bi. Euh, bi ñuy seetaan émission bi yow ak justement on va revenir sur cette émission avec euh, euh Souleymane Ndéné Ndiaye. Euh, dégg nañ ko à un naan son souhait c'est que la famille libérale puisse rester au pouvoir et que la famille libérale se retrouve quand on parle de famille libérale jamono jële est-ce qu'on peut penser à ce que euh, Karim Wade qui sera peut-être le candidat de, de PDS sans doute je dirais même le candidat de PDS Macky Sall euh, avec donc euh, peut-être l'APR ou bien d'autres candidats qui sont euh, des libérales ou bien des libéraux qui vont se retrouver autour d'un seul candidat pour pouvoir l'élire au présidentiel de à la présidentielle de 2024 euh, euh, dafa am loo xam ne sur le plan politique il euh, y ce qu'on appelle des familles politiques. Mm. mais lan mooy politique wala parti politique essence su parti politique mooy conquérir le pouvoir famille libérale comme famille socialiste wala la gauche wala donte dañ naan la gauche par exemple ce sont mm-hmm. des faiseurs de roi ci réewum Sénégal Euh, ñu ne le parti socialiste moo fi nekk Senghor daanaka ba 2000 si Abdou Diouf ñu perte nguur gi dellu siwaat ci euh, biir Benno Bokk Yaakaar wala euh, ànd ak Macky Sall de 2012 à aujourd'hui ñoom it bëgg nañu retrouvaille grande famille socialiste mm-hmm. PDS bëgg nañu retrouvaille grande famille libérale yamuñu si ce que disait maître Abdoulaye Wade moo ko njëkk a wax Macky dafa waxoon ni sama sama sama sañ-sañ sama bëgg-bëgg mooy euh, libéraux yi nekk au pouvoir cinquante ans moo ko waxoon Macky ba mu dompee euh, ci waaje joxe jébale lenge yi 2024 moom tamit bëgg-bëggam mooy comme ni ko man Ndéné Ndiaye waxee famille libérale des parce que ñoom ñoo nekk ñoo bokk seen famille libérale am na ñeneen ñoo xamee ni ce sont des wadistes je prends le cas de Samuel Sarr c'est quelqu'un koo xam ne tey boo ko nee c'est un wadiste wala c'est un libéral qui reste qui reviendra au pouvoir en 2024 danaan Gongo Omar Sarr euh, tous ceux qui ont été euh, pratiquement euh, ñi nga xam ni ci weenu libéralisme lañ leen nampal ñooñu bu doon seen sago libéraux yi ñooy des au pouvoir yamul ci Sénégal parce que dañoo bokk comme ni muy amee international libéral mm-hmm. am international socialiste mais international socialiste bu noon seen sago ci réew yëpp yi nga xamee ne am nañ fa tànk mais socialiste yi ñoom ñooy jiite mhm. international libéral ci réew yi nga xamee ne libéraux yaa ngi fépp ñoom bu doon seen sago président bi ci ñoom lay bokk donc c'est c'est c'est purement politique c'est de bon guerre aussi mais nag euh, dañu nekk réew moo xamee ni c'est pas ñoom ñoom ñooy décider mhm. kii décider mooy kan mooy yow mooy kii euh, Cheikh mooy man mooy Thiala mhm. mooy nit ñi suñuy carte te différence bi mooy ñu yore carte électeur peut-être gëmuñu ay mbirum libéralisme wala socialisme wala gauche wala mhm. am na ñoo xam ne amuñu yooyu les convictions politique wala amuñu yooyu les euh, euh, parcours ci lu jëm ci wàllu politique gis na cette photo elle est à mon avis très très très euh, ni ñu ko weetee important parce que ñii ñoo bokk seen seen famille mhm. Pape Diop ñu ne la amee Aminata taal ci la bokk Souleymane Ndéné Ndiaye qu'on a pris hier hmm. Karim Wade maître Abdoulaye Wade hmm. c'est lui qui a un peu tout fondé Omar Sarr bi ci nekk également Modou Diagne Fada hmm. et tant d'autres yoo xamante tamit ci li ci ci grande famille libérale la ñu bokk ñu ci bëri ràññee na leen parce que ñenn ñi nekk nañ ci nguur ñenn ñi euh, entre ci 2000 2000 euh, dugg nañ ci nguur am na ñu ñu ci ràññee ñoo xamee ni avant ñu ngi woon ci euh, opposition mais yenn saa ñu xëcc leen ci nguuruk Abdou Diouf Euh, donc c'est une grande famille. au plan politique euh, pour le Sénégal en tout cas euh, tas nañu. certes ci ay parti politiques ubbi seen i parti politique mais c'est une famille boo xamee ni mais ñii imaginer ñii ñëpp ñu bokk benn parti kan moo leen di téye comme on dit. Mm-hmm. gisuma ko ñu ne Khalifa Sall plutôt Karim Wade. Karim Wade maître Abdoulaye Wade jiite ko ñu ne la Macky ci la bokk mm-hmm. Omar Sarr. Euh, Pape Diop Aminata Tall ak ñeneen ah parce que euh, Modou Diagne Fada Aïda Mbodj ci la bokk mhm. Aïda Mbodj ci la bokk Sabel sar ci la bokk euh, ñaata libéraux ñoo xamee ni Abdoulaye Wade moo leen formé moo leen mhm. yëkkati moo leen may doole Idrissa Seck oui Idrissa Seck tout à fait Idrissa Seck mhm. alors ñii nii mais ñii bu ñu àndoon ah bu ñu àndoon opposition doon bu dee ñoom ñoo ànd nen dañuy wuti nguur kenn du jàkkaarloog ñoom. mais bu bokkoon tamit Birahim ci ci euh, xeexu le président Macky Sall parce que gis nañ ko mu doon wax que dina diviser opposition bi te loolu aussi avantage am euh, mhm. ku falu wala ku nekk ci bopp benn mhm. parti. Mhm. ce ngay posé. mooy da def le vide autour de toi. Ablaye Wade. leader du Parti démocratique sénégalais président fondateur secrétaire général national demoon nañu ba amatul numéro 2 ku taxaw ne numéro 2 nga wala mu teg la sax numéro 2 boo commencé di am tuuti tuuti fit sax wala di xaw a xool loo xamee ni waroo ko xool di def comme lu ñu wooyee is no good je vais être xalif à la place du xalif euh, ñu écarté la Idrissa Seck mm-hmm. est-ce que amoon na numéro 2 ñaata nit ñoo nekkoon ay potentiel numéro 2 wala nekk ay numéro 2 ñu jóge fa. tu prends Thierno Bocoum tu prends. Déthié Fall Déthié ak ñeneen ak ñeneen. Abdourahmane Diouf hmm. Abdourahmane Diouf. Mhm. mu jëlee leen fa Macky Sall kan mooy numéro 2 au sein de l'APR ku ci nekk wax nañ ko. Mhm. mu xëy benn jour ba ci. Euh, premier ministre Amadou Ba. Mhm. ñu jël ko teggi ko teg ku ne leen. ñu ne la Mbaye Ndiaye c'est-à-dire ils font le vide autour d'eux. parce que li ñu naan diviser pour mieux régner c'est valable un peu partout mais ils le vide autour d'eux ba nag taxaw ci situation boo xamee ni mhm. yow fa ngay fa nga doon soxlaa numéro 2 fekk na yow wàññi woon nga sa numéro 2 ba noppi à mhm. pair Benno Bokk Yaakaar je prends plus APR Macky Sall qui va passer le témoin en 2024 mhm. peut-être que s'il avait bien préparé ci biir euh, APR un numéro 2 bu fort kon heure bi le débat autour de kan mooy doon sama plan B bu du metti bu fekkoon ne ci xelam bëggoon na am numéro 2. par exemple moo tax man la libéraux yëpp libéraux yi ma gis bopp am ci kenn kuy des ak numéro 2. parce que lu numéro 2 ci biir parti euh, libéro yi. muy PDS muy Rewmi muy APR muy ñi nekk ci seen parti seen euh, obédience nuñ ko mën a woowee libéral boobu kay jiitu moom mooy jiitu kooku kenn du ko naatable. waaye kay topp ci moom dina topp ci moom un na après mu soppi ko teg fa keneen wala mu wàññeeko teg fa leneen mais euh, ci ñoom la. Mhm. d' accord euh, Cheikh benn mot euh, ci li nga xam ne wala benn kaddu ci li nga xam moom moo jëm ci détenu politique yi ñu ngi ko doon wax sànq léegi euh, Bougane Gueye Dany dut na ci baaraam nee na nañu combat bu njëkk bi maanaam Macky Sall du fi sampé ndëndam ci élection présidentielle 2023 F24 tamit nee nañu bokkoon na ci seen xeex loole mooy Macky Sall du bokk comme Macky Sall nee du bokk jamono jile jublu nañu ci xeex ñu libéré ñi ñuy woowee ay détenu politique. waaw jublu pour génne ñi nga xam ne ñooy. détenu politique yi mais aussi tamit jéem a xool ñan ñooy ñan ñooy détenu politique ak ñan ñoo ko nekkul parce que ñi ñu jàpp euh, toll nañu ci li mu euh, juróom ñaari téeméer ci ay nit yoo xam te ne jàpp nañ leen ak lu ko weesu sax am ci ñoo xamante ne nii ci biñ leen di jàpp jàpp dañ leen jàpp ci ay anam yoo xamante ne nii Euh, anam yooyu kenn mënul wax ni ñi ay détenus politiques lañu parce que dañ doon yàq ñii dañ doon euh, sàcc ñeneen ñi dañ doon def naka su dul noonu. Mhm. am na ci ñett ñoo xamante ne nii wax dëgg fa yàlla jàpp nañ leen ci seeni opi bon opinion la la ñuy wax mais ci li nga xam ne nii mooy seeni kàddu yoo xamante ne nii ak wala seen xalaat goo xamante ne nii euh, fësal nañ ko ci seeni page Facebook wala ñu demee noonu loolu tamit ñu war cee bàyyi xel bu baax a baax mais lu am solo mooy. Euh, comme ni ko Birame waxee sànq ci euh, kàllaamay nasaraan mooy que ne euh, justice yoon ci boppam moom moo mën a déterminer ñi nga xam ne nii ñoom ñooy détenu politique ak ñi nga mm-hmm. xam ne tamit nekkuñu ko te loolu wax dëgg fa yàlla xëy na peut-être bañ ca yeggee dinañ xam ku ci nekk fi nga xam ne nii foofu ngay féetee ci wàll moom mais daal li ci munti am daal ñu mm-hmm. xam que ne ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkul détenu politique te bokkoon ci ñi nga xam ne bi biñ leen di jàpp dañ leen jàpp ci ay anam yoo xamante ne nii anam yu xaw a doy waar la. Mhm. ñooñu wax dëgg fa yàlla euh, mënuñu leen considérer comme détenu politique ñi nga xam ne nag ñoom ñooy détenu politique nag après. Mhm. Euh, bu ko yoon euh, xamale dinañu xam aussi tamit ban position lañ lañ lañ lañ la ñuy am ak lan mooy doon li nga xam ne nii mooy wundu pour que. wax dëgg fa yàlla ñu mën a génn ci situation boobu ñu nekk. Hmm, mu ngoog ñu wax ci wàllum tàggat yaram càllalum ak li nga xamante moom mooy euh, Ligue 2 bu euh, Sénégal moom la ñuy daal di euh, tàmbale. championnat bu Sénégal Ligue 2 bu Sénégal nag xam ngeen ne daal nañu dóor nit ci démb li nga xamante ne moom mooy kon vingt cinquième journée ñaar fukk ak juróomeelu fan bi nit ci démb lañ ko daal di dóor résultat bi nii lay daal tëddee. ak euh, complicité de la régie normalement war nañu mën a am affiche bi ci li nga xam ne moom mooy maanaam écran bi kon gis ngeen ko nga xam mooy Dakar Université Club euh, ndaanu maanaam euh, défaite bi nga xamante ne am na ko ni ki démb ak UCST Port Thiès FC ak équipe bu Amitié FC dañoo daal di tembo benn bal ci benn Njàmbur dafa daal am ndam ci kanamu HLM bu Dakar ñaari bal ci benn Kër Madior naka noonu tamit dafa daanu dafa daan équipe bu Oslo FA jamono bu Fatick moo daan équipe bu AGEL bu Rufisque match kon match phare bi ci li nga xam ne moom mooy euh, maanaam vingt cinquième journée ndax dañu fàtte ni euh, ñaari équipe yooyu yëpp daanaka dañ doon xëccoo euh, première place bi tax na sax équipe bu jamono Fatick daal di ñëw ci première place su classement bi daan ci ñëw daal di daanu ci kanamu Mbour Petite Côte Demba FC ak US Ouakam dañuy daal di tembo ci classement bi kon sànq maa ngi ko doon wax ak jamono bu Fatick moo nekk ci bopp bi am nag lu toll ni ñeent fukk ak ñett ay poñ ci rawee nag équipe bu US Ouakam ñaari poñ moom li nga moo nekk ci ñaareelu place bi am euh, ñeent fukk ak benn poñ AGR bu Rufisque dafay delluwaat euh, ci ñetteelu place bi jàppale ne jamono ji nag équipe euh, bu Port FC ak équipe bi am mooy Kër Madior daanaka wàcc nañu daañu leen relégué ci national une bi waaye nag Dakar Université Club moom jamono ji ak Mbour Petite Côte bu ñu mayul daañu wàcc ñoom tamit bu ñu góor góorlul ci championnat bi li ci daal des daanaka. Euh, ñaari fan euh, jàpp euh, ñett moo des ci championnat bi Ligue 1 bu Sénégal incha allah lum ndiki dem kon jàppal ne Jaraaf moo daan équipe bu Casa Sport tax nag Casa Sport gën a sori li nga xam moom mooy maanaam première place bi Génération Foot moom moo nekk ca kaw ga fi mu ne nag mu ngay waxaabaabal rek di dem ci ñett fan wala ñeent moo des ñu daal di yeggali kon li nga xam moom mooy championnat boobule li nga xam moom mooy beach soccer laataa ñu ñëw ci loolu ñëw ci tournoi de la pêche. Euh, sénégalaise tey jii la jàpp leen ne kon daal dinañu def tirage au sort bi ajjuma daanaka ñu ngi leen ko doon wax ni tirage bi gaaw lañ koy def ci ëllëg sa def nañ ko ah, foofee kon ca maison de la presse ma ñu ko defee nag jàppaleen ne euh, maanaam euh, bu ñu defee boobu lépp euh, tirage nii lay daal di tëddee ci li nga xam moom moo jëm ci boobu lépp tirage am na nag ay équipe yoo xamante ne moom xam naa ne fi mu ne nii tàmbali war nañu tàmbali entraîné ku ci mel ni leeral groupe leeral ci boppam ci poule D bi la ñuy daal di bokk maanaam quatrième poule bi fas yéene ci jongante équipe bu 2STV équipe bu GFM leeral TV ak. fu daan ñoom ñoo daal di bokk pour gis ngeen ko euh, poule bi nii lay daal di demee euh, kon ci li boobu lépp biir gis ngeen ko poule A bi euh, D-Media ak équipe kon bu maanaam BBC Afrique ak RTS ñoom ñoo daal di bokk ci boobu lépp poule gis ngeen ko nag muy bokk waa Rési woon nañ ñu poule B bi de waaw moom poule D bi de moom ak waa 2STV ak waa GFM ak waa Walfadjri ñoom ñoo nar a jomante ndaw ndaw poule bu métti. <laughs> mais mais ñooñu tàng ñooñu tànguñu. li ngeen li ngeen ngeen am ci poule A ah, ak poule bu njëkk bi voilà power en tout cas daal entraînement war na leen. waa waa ñu joué ak waa police plateau ba pare moom la ma jubaa di wax ñu tóor leen sat Birame sa sa équipe bi faaw nga yab leen 7-2 lañ ñu door 7-2 mais bon c'est. c'est pas waa police semaine lañ am.

Pama demul naka taa demul. waaw naka taa demul woon Pama Maguette aussi waaw ak gars yi ñu demul woon bëree woon. mais naaw te faaw ñu yóbbu leen. waaw loolu lañ fa doon def kon bu dee comme effectif bi ñëwul woon. kan moo doon góolu. c'est haya. ku doon góolu. nga ne <laughs> xam nga tamit mënuñu dem. di di demante na daa kë nee na daa kërëfe tey dama tax mu kërëfe. ngeen di jox Cheikh Aya tamit. nee na dafa kërëfe tey. léegi dama bëgg vraiment je prends l'opinion à <laughs> bu leen fi génnee ci list ci yéen ngi jëm ci presse foot. liste bi tant que validé wu <laughs> maanaam équipe bi war a dem représenter le groupe leeral Média tant que ko. ak sama staff <laughs> bu mu dem football yi. non man je parle de la liste des joueurs. des joueurs. avec leur encadrement technique ou je ne sais quoi. Mhm. ñi nga xamante ni war nañoo dem. tant que validé wu ko. kenn génn kër gi. Cheikh Aya bi ngeen jël jox ko camp yi. <laughs> waxuma set rek waaye yéen dañ leen sarax sax. police am na ñu jot football police. su ma nee am nañ jot football mooy. Ah dañu am ay terrain football. di ci exercer wu régulièrement def sport régulièrement. Mm-hmm. gendarmerie dañuy def sport régulièrement. journaliste taluñu sport seen sport seen lamine la yem. ñuy wax rek régulièrement bàyyi ñuy bind régulièrement kon vraiment. <laughs> waaw bind bi doy ci raw Pape Maguette xam nga maa lay wax ci. Ah. ndeysaan yeneen télé yi ñun lañuy ñuy topp. Ah. Euh, Yacine Seck fële ci Sen TV maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. <laughs> Euh, Paamar boo paree nga wóoraale ma sax Sen TV ñoom ak ñoo bokk ñun rek lañ. non ñoom non Paamar. Euh. Sen TV maanaam dañuy toog war a jàkkaarlook seen seen seen i téléspectateurs rek seen i auditeurs. sëgg seen i téléphone di seetaan leeral TV matinal c'est clair. donc ñu lay nuyu bu baax a baax Yacine Seck xam naa ne yaa ngi may yaa ngi may seetaan <laughs> ah, gis nañu kii bi euh, di nuyu également Aïssatou Diaby sa 7TV. Mhm. Mhm. xool ko mu ngi sëgg jàkkaarloog téléphone am. <laughs> téléphone am la jàkkaarlool te xoolal c'est un téléspectateur qui m'a envoyé cette image. pour ma pour conforter li ma doon wax sànq ne ni ñun la ñuy topp Yacine Seck ñu ngi lay nuyu. xam naa ne si jamais buggaan dàq la. <laughs> pour nous avoir regardé bah écoute tu peux venir ici pas de souci. <laughs> incha allah macha euh, allah c'est c'est la famille de la presse ah. Uh -huh. tous de la de la même famille donc da ciy baax gis nga ko D-Media Pao madame D-Media ban groupe ban pool lañ bokk sax euh, ci ci tournoi presse bi euh, parce que ñoom tamit ñun nag la ñuy wër. Hmm. nee ñu derbi la ñu bëggoon suñu diggante ak ñoom. D-Media pour euh, pour aar pour la ñu bokk donc moom ak waa RTS ñoom ñoo bokk poul xam naa ne waa RTS lañ leen di jox ngeen mujjee joué ak ñoom derbi boobu. derbi non kenn du derbi mais poul mais poul C bi du derbi de. Excaf Sénégal 7. Euh, ak Trade FM CNM. bi bi xaw na kii waaye waaye waaye tamit non tout boobu la waroon bokk sax. parce que Sénégal 7 non doon nañ leen 6 poul bi ngeen bokk yen ba pare. am ngeen 2 GFM wala Fadjiri. GFM je pense que ñoom ñoo joué final daaw. est-ce que jëluñu ko woon. ay joueurs lañu am de. non ay màgget ñoo fa nekk de. Eh. Hmm. daa Pao ma ne la GFM bokkul woon daaw. Walfadjri ah, bokkul la bokk. Ah. donc démb laa ak kan ngeen di football ñun yi mhm. euh, ah, moom dèjà ma wax leen benn joueur boo xamee ni. marqué leen ko rek yéen. Euh, Mamadou Biteye. Hmm. ni muy kiiyee noonu. doon jéego du joué de. non dafay joué. non bi tey mag bi tey bi tey bi ma liste waaye yónnee bi rek. bi tey yónnee leen liste bi. rek. am na ñoo xam ne moom dès le début moom on enlève leur nom. dès le début ah. waaye dès le début la ngeen defoon góor. Cheikh Aya Bali jaar nañ fu ne. dañ fu ne yàlla. ma ne ndax bon ça a été un match vraiment plaisant entre la police donc ak ñun. day ma dem gis nga sax da la dóor mais boo yàlla euh, baax da euh, dinañu dinañu ñëwaat police euh, Dakar Plateau xaar leen ñu on va revenir cette fois-ci avec force et certainement on viendra avec Birahim Touré au niveau sur le banc mu nekk coach manager bi Mansour Diop ci côté gi xam naa daam jeefa mën nañu ak ak ñeneen bon parenthèse la woon acca ñu dem ci but soccer yaataa ñu jeexal ci àllalum ak ci wàllum tàggat yaram but soccer pourquoi j'ai parlé de ça important ñu wax ko il Euh, de benn discipline boo xamante ni bëri maanaam ëpp na wala bëri na ci li muy indi ay raaya ci biir réew bu Sénégal ci lu jëm ci wàllum football mooy la ñuy wax le football de la plage euh, gis ngeen ko euh, ci jeu africain de la plage yi xam ngeen ne <clears throat> fan yéen lañ ko doon jongante foofee ca Tunisie Sénégal ñàkk ci final ba lu ñu gëj ñàkk lu ñu gëj a ñàkk nag. beach soccer gëj nañ ñàkk match 2015 ba tey waxuma la final de maanaam match ci boppam la équipe nationale bu Sénégal gëj a ñàkk. 2015 ba léegi ci lu jëm ci tournoi Afrique. c'est vrai que euh, euh, li ñu def ci ci waaw kay ci tefes mu ngi noonu euh, ak le capitaine Alf Seyni xam nga kañ nañu gëj a ñàkk match mhm. bit soccer demi-finale coupe du monde beach soccer bi ñu joué woon je pense que c'est l'Espagne qui nous avait sorti en demi-finale ou le Brésil maa ngi mhm. maa ngi fàtte at bi ñu génn 2022 mhm. tegle nañu quatre coupes d'Afrique yoo xamante ne Sénégal moo koy jël juste récemment Coupe d'Afrique 2021 euh, bu ñu amale woon Saly Portudal mhm. mais cette fois-ci euh, Maroc moo ñu gagné Maroc bi nga xamante ni le plus souvent Sénégal moo ko doon gagné euh, en finale et pourquoi ñu mu am importance pour ñu def un focus ci boobu le match parce que il faut le rappeler le coach de l'équipe nationale l'ex-coach de l'équipe nationale du Sénégal bi nga xamante ne jël na quatre titres avec l'équipe nationale du Sénégal moom moo démissionné ci équipe nationale Sénégal dem doon le coach du Maroc Mhm. finalement qui a encore une fois qui est qui est venu mhm. pour renverser l'équipe nationale du Sénégal xañ leen raaya indi leen défaite bi nga xamante ne moom ci boppam. Mhm. moom moo ko amoon en 2015 face au Mozambique Ngalla Sylla 2023 euh, euh, mu ne Sénégal daal seen. Euh, suprématie ci continent africain bi ci biir suuf ak yéen la tàkk. donc donc c'est presque le Sénégal qui a gagné le Sénégal là. effectivement c'est a gagné le Sénégal. tey moom may nañ la ko parce que li fi li fi li fi xewoon. ci ci on peut même pas parler de tout hein, pour bon. Euh, c'est comme ça Pape le temps de revenir sur sur sur. ban ban force lay joué ma. Pape Maguette moo yor suñu ah, axe bi de Paa naan ma du joué. Pape Maguette bàyyi la la Mohamed suñu équipe bi ay papis ñoom papis. ah Séni Séni waaw Séni ah, Séni ah papis ñëw na papis day joué. ñëwul woon waaye match ba ñu ba ñu joué woon ak équipe ba fële. Mm-hmm. bu mu wax turu équipe ba ndax xam naa ne Matar day am ndam. directeur nee na ngeen jox ko balaa ngeen di dem. liste bi waaw waaw man sax d'accord naa ci loolu parce que yenn booy yi moom. parce que yenn defatu ay sag boobu mënuñu mënuñu ko encaisser. loolu du mën a mais mais mais la sarax la. waaye ay loolu bu taxee ba presse bi ngeen ñeme dootoo leen ko defati lii man maa leen ko wax xam nga xam nga U17 bu ñuy dem Coupe d'Afrique ah. trois matchs amicaux la ñu am trois défaites nee nañu ah. ci làmb ci ci làmb dem ci làmb ji di bàkku ñibbisi di bàkkooku ci làmb ji di bàkkooku <laughs> yéen dem ci benn en tout cas yéen mbapat ngeen dem hmm. hmm. ah. <laughs> tout cas défaite yi ñu am ngeen war a janvier ba ba ba defet hmm. yi ñu am ci match yi ñu am yëpp. Euh, c'est des équipes professionnelles par exemple police mën nañu jàpp ne ay professionnels lañu. dans le cadre RTS des professionnels RTS dañu bokk sax ci. bokkuñu suñu euh, poule. nañu euh, parle de quart de finale il faut que wax le KRT. mais la 2STV uh-huh. Walf et de. BBC 2S Walf. naa leen lool. leer Sénégal 7 ñam nañu 6-2 lañ leen doon. 7 TV ñam nañu 3 euh, ñaata ñaata lañ leen dóor sa paa ba dimbali ma en tout cas ñoo leen dóor. waaw ah. <laughs> presse ñu leen jàppee doo soog ko defati. 7 euh, match yi kañ lay commencé. Euh, le 15. paa ma ne ah, yéen a dóor RTS doo doo 4-0. ah kon kon ah, kon RTS dañu war na bokk ci suñu pool bi. mais bon yàlla baax na yàlla baax na. 2SGFM. Mhm. Walf Leeral ñoo bokk pool. <laughs> acca seconde jeexalal foofu ci tàggat yaram. waaw acca macha allah foofu la ñuy jeexal Malade ñoom nag jooyoon na lool. ci boobu le tirage ndaxte c'est son père. moom la ñu tuddee. tuddee championnat bi. ñu koy ñaanal bu baax a baax yàlla yërëm ko xaare ko àjjana. amiin voilà donc marqué na marqué na ñëpp. merci Senghor ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mu nekk li nga xam moo gënoon a fës ci wàllum tàggat yaram léegi léegi ñu jàll ci xibaar yi. Yamagan ay ay yeah. ok doore eh, xibaar yi ak li nga xam ne moom moo ñeel ubbi teg juróom-benneelu fukk ak eh, ñetteelu session extraordinaire bu eh, conférence yi nga xam ne ëmb na ay njiit ak itam gouvernement yu CEDEAO amal nañu ko nag ci teewaay lu toll ci fukk ak ñaar ci ay njiit bokk na ci njiitu réew mi Macky Sall ci ndaje moomu nag li ñu rafetlu bokk na ci waxtaan wi nga xam ne njiitu réew mi woote na ko muy dialogue bi waaye itam ñàkk ko bokk président Macky Sall ci élection tànneefu njiitu réew bu atum 2024 bokk na itam ci li nga xam ne àddu nañ ci waaye waaye itam lu ñeel coppite yi nga xam gis nañ ko ci réewum Mali Guinée Burkina Faso jëm ci wàllum démocratie bu sukkandikoo ci ab ah, bataaxal boo xam ne ah, fësal nañu ko wax ci ah, Lyon bu Bawol bi nga xam ne démb nag fësal na sampu ndëndam ci élection yi nga xam ne jàpp nañ ko ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février atum 2024 mu ay Aïda Mbodj moom mi nga xam ne bokk na ci coalition bi nekk ci kujje gi di Yewwi Askan Wi moom nag dina fësee ne dem ak Alliance nationale démb nag la ñu doon amal ab euh, ndaje ngir daal di ko euh, samp ca euh, CICES mu nekk candidature bu yees naam sax xamle woon na ko waaye fi mu ne Birahim dëggal na ko mu nekk bu ay Mbodj mi nga xam ne mu bokk ci Yewwi Askan Wi. Birahim parce que maa ngi maa ngi xool justement ci. dem mhm. xam nga li mu def. Mhm. kii yam rentrée politique. Mhm. ak yooyu ma gis salle bi mu nekk ci ses fees mu am ñu ko wuy si mu am kàddu yoo xam ne ni da fàttali ci euh, digganteem ak Khalifa Ababacar Sall fàttali ko également dëggal ko ci euh, kii di Ousmane Sonko mais c'est c'est une euh, dame au plan politique boo xamee ni euh, am na taxawaay am na loo xamee ni jot na ko xeex ba am ko ci lu jëm ci par exemple mairie lu jëm ci wàllu politique Euh, tey ku am fit la ça il faut quand même le lui reconnaître mais elle valable ci lu jëm ci wàllu xëccoo ci wàllu politique euh, valable na parce que déjà docteur Aïda moom laa koy wooyee léegi sax parce que euh, même docteur am loo xamee ni jot na ko jàng ba am ci ay diplôme politique bu dee wàllu expérience <laughs> lu mu ci am am na ñu ko amul ñu bari sax parce que fekkee na lu bari dund na lu bari nekk na fi ministre am na kon un vécu au plan politique bu ko mën a permettre mu taxaw ne ni ah pourquoi pas dama bëgg a samp sama nën mais la question mooy est-ce que le Sénégal ou beaucoup de pays d'Afrique en tout cas Sénégal ci la bokk Libéria jot nañu lijjanti lool. Mhm. est-ce que pare nañu. ci jox euh, nguur gi euh, ab soxna. Mhm. Euh, je me souviens de je pense Mariam Wane Ly. Mhm. bu Parena je pense c'était en 2000 su ma bokkoon na ci candidat. ci élection présidentielle su ma juumul 2000 euh, am na ñeneen ñoo xamante tamit euh, Amsatou Sow Sidibé bokkoon na ci ay élection euh, ñëw pour samp na ndam ci élection lañ leen di wax ci seen wàllu pourcentage bariwul mais am na ay efforts yoo xam ne au fur et à ñu koy def au plan politique ci jigéen ñi parce que coolee bari góor boo gis mu taxaw samp ndëndam ñi ci ëpp ci ay militants ñi nga xam ni ñoom ñooy lijjanti pour que nit ñi dem voter ñoom ñooy fees ci centre yi. Mhm. de vote yi le début de de de la matinée ci dimanche mhm. ay jigéen lañu. Mhm. pourquoi pas jigéen mën a samp na na mais yëngal góor ñi nuñ ko mën a am ci pourcentage boo xam ne wala position boo xam ne dañ naan chef de l'opposition jigéen la dans d'autres pays bon les femmes euh, da nga jël Ellen Johnson Sirleaf bu Libéria euh, jiite réew pourtant réew moo xam ni ak a jafe woon na jiite mais euh, je pense qu'elle est sortie par la grande porte ñëpp mhm. ràññee ko ci liggéey ba nga xamee ni def na ko ba donte wàcc na après ñu jël euh, bi fa Josué euh, nekkee président mhm. daanaka li mu koy consulter bari na mhm. euh, li mu koy woo ci wetam bari na au plan international mu am tur am sant pourquoi pas au Sénégal au et Sénégal. pourquoi pas le docteur Aïda Mbodj d'accord cher candidature Aïda Mbodj Ibrahima wax na ko am na expérience ci ci wàllum politique gis nañu également que ni yàgg na ci effectivement <laughs> yàgg na ci trop te man mm, liñ koy dàqalatal sax dafa nekk loo xam te daf koy incarné mhm. seen lion <coughs> il faut le dire excusez-moi euh, gaynde la parce que boo gisee parcours am ak aussi tamit surtout li nga xam ne nii liggéey na ko ci wàllum politique fii ci Sénégal parce que aussi tamit nañ fàttali que ne euh, loi bi nga xam ne nii moom moo ñeeloon wàllum parité mhm. ci góor ak jigéen moom liggéey na ci liggéey bu am solo ci jamonoy euh, président Abdoulaye Wade bi mu fi mm. nekkee donc mu nekk loo xamante ne nii euh, c'est des actes yoo xamante ni posé na ko fii Sénégal moom bokk na ci ñi nga xam ne ni fii ci Sénégal euh, jox nañ leen cër mm. de par seen comportement waaye itam kenn mësu ko dégg ci ay wax yoo xamante ne nii yu xaw a tey xel yu demee noonu. donc mm-hmm. pour man euh, comme Birame ni mu ko waxee rek xëy na ñun Sénégal ñun ñoo pareegul je pense loolu laa yaakaar wala sax suñu dëkk yi ñoo pareegul pour que ñuy am njiit yoo xamante ne nii jigéen la ñuy doon mais euh, tey jii euh, bu yàlla defoon tamit mu nekk mu mu mu mu mu mu bokk mu bokk ci élection yi parce que déjà mm-hmm. am na. il faut d'abord ñu bokk ci élection yi pour ci li nga xam ne nii moom la ñu war a. Euh, proposé comme ay ci décision yi nga xam ne ni jëloon nañ ko ci wàllum dialogue national mais bu yàlla defoon tey jii mu nekk koo xamante ne ni dina jiite réew mi dina dinañu mën a am koo xamante ne wax dëgg fa yàlla dina mm-hmm. ab taxawaay bu mat a mat a mat ci mm-hmm. euh, ci ci ci réew mi muy nag koo mm-hmm. xamante ne ni ñu ngi koy euh, encouragé bu baax a baax par rapport ak Euh, décision bi nga xam ne moom la jël initiative bi nga xam ne di moom la porté mm-hmm. di yaakaar ne xëy na aussi itam di xaar aussi programme mm-hmm. ci li nga xam ne loolu euh, lay proposé sénégalais yi et mm-hmm. comme ni ñu ko waxee rek à chaque fois le peuple mooy am le dernier mot et à chaque fois boobu mooy xool ki nga xam ne moo ko doy pour que mu tànn ko mais jàmbaar la et euh, vraiment mi ngi bay waaram bu baax a baax a baax ci li nga xam ne ni mooy langue politique Sénégal d'accord très rapidement selon selon elle. Euh, ci mhm. li mu wax démb teg na ko ci ñett axes principaux. Mhm. Euh, muy jëm ci wàllum euh, bonne gouvernance muy jëm ci wàllum naka lay def ba mën a gën a may jigéen ñi doole surtout ndaw yi mhm. donc tout ça ça fait partie de son programme hier déjà elle l'a détaillé ci investiture boobu nga xamante ne mu ngi koy def elle fait partie des rares femmes. yi nga xamante ne ay battantes lañ ci lu jëm ci langue politique bu Sénégal wala sax tey jii gis nañu ne bokk nu ci ay maanaam ci ndaw ci ay yoo xamante ne sañ-sañ taxaw samp seen dënd ci élection présidentielle yu dëgmal en tout cas pour l'instant euh, si ce n'est pas euh, Mimi Touré avec euh, Mimi c'est Aïda ou bien même Rose Wardini hier même qui a aussi déclaré sa candidature elle a le charisme elle a justement le vécu elle a l'expérience politique et elle a vécu justement lépp lu administration ak lépp lu jëm ci wàllum politique donc c'est un candidat ou bien une candidate mm-hmm. nañu nañ ci bàyyi xel pourquoi maye ma koy wax Euh, tout simplement elle peut poser l'eau d'accord ñu doon janoo démb ak euh, taskatu xibaar di waa Ligue démocratique euh, LD ñoom nag euh, ci ndaje moomu ñaawlu nañ bu baax a baax manifestation yi nga xam ne moom fi amoon bu yàggul dara ak jeexintal nga xam ne moom la daal di andi àdduna ni itam ci ñàkk bokkuk njiitu réew mi ci élection yi atum 2024 ñoom rafetlu nañ bu baax a baax dogal boobu nga xam ne njiitu réew mi jël nañu jël na ko li ñuy sàkku nag jamono ji moo ñu ubbi rek ab enquête ngir leexal li nga xam ne rek moom moo fi xewoon ci ayuba si ñu génn mu di manifestation yooyu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 ndox gi euh, SD yeeg ak yëpp ak yi ci dee yëpp ñaawlu nañ ko. ñooñu ko jaajëfal ko bu euh, baax a baax diwaanu Mbour lañuy ñuy euh, wutali gannaaw meex bu boobu de diwaan ku àddu ci discours njiitu réew bu Macky Sall di ki nga xam ne moo di meex bu maliku Malicounda di màgg seen moom na rafetlu na itam. Euh, ñàkk bokkuk euh, njiitu réew bi ci élection tànneef njiitu réew bu atum 2024 euh, mu jàpp ne rek ab leçon de morale boo xam ne mi ngi koy daal di joxe ñeen lu jëm ci lànguk politique bi waaye itam mu jàpp ne rek fi mu ne moom njiitu réew mu taxawee na ngir may ñeneen ñi ñu wane seen bopp kàddu yu ni mel nag doon na ko fësal bañ doon dalloo poste de santé boo xam ne moom moo nga nekk ca fa nga xam ne moo di ca gañe bugg nga xam nag fi mu ne daal dinañu ko jox turu ki nga xam ne moo di njiitu réew mi di Macky Sall yàttali ak Oumar Ndiaye ak Babacar Thial teel mais la ndax euh, président bu fekkee ne liggéey na liggéey bu rëy bi mu liggéey ci réew mi ba ñëpp teg ci seen bët mu mënoon a laajaat beneen candidat beneen candidature te bu ko laajoon da koy am parce que liggéey na ko te tamit constitution may na ko waaye mu renoncé lépp ne day bàyyi beneen doomu réew mi essayer moom tamit jéem lam man je crois que loolu mbégte bu rëy la grandeur bu rëy la boo xam ne bii am na la leçon bu am solo bu démocratie bu mu jox Afrique jox ko Sénégal jox ko adduna bi vraiment bi ñu déggee loolu dañoo caa bég ba tudde ko poste santé bi donc poste santé wu gagnant bu gu président Macky Sall lañ ko tudde ngir rek delloo ko njukkal ci liggéey bu mag bi nga xam ne defal na ko réew ah mais bien sûr bien sûr président euh, la tey voilà royukaay la yaakaar naa ne tey acte bu mag bi mu posé war naa tax lu mu wax rek ñëpp topp ci donc je crois que loolu amul benn lu ci am ay sikki sàkka Euh, fu mu ñu jaarale incha allah ñun ñëpp dañoo ci jàpp téye ci parce que mooy sunu intérêt mooy intérêt Sénégal. kon maire bu Malicounda di Maguette Sène ci micro Oumar Ndiaye ak euh, Babacar Thial ñu wax ci euh, fukk ak juróom-ñetteelu édition bu corridor 2023 directeur général bu Sénélec di pap Pape bi Bitèye moom nañu nag daal di jagleel prix bi gën a mag juróom-ñetti fan ci weeru juillet nekkoon samedi bi ñu génn ca King Fahd Place dañ ko doon amalee mu tukkee ci mouvement des entreprises sénégalaises di MEDES yaatale ak Ibrahima Khalid Diémé juróom-ñetti fan ci weeru sulet atum 2023 la mouvement des entreprises di Sénégal MEDES daje woon ci King Fahd Palace ngir rek mun a amal ndaje bu mag bi nga xamante ne moom lay organiser at bu jot loole nag dafa dugg ci wàllum tànneef bi nga xamante ne moom la ñuy def ngir xool ana chef d'entreprise moo gën a ràññeeku ci at mi fii ci Sénégal ren gi ci atum 2023 gannaaw ndaje boobule ñu daldi ci gis ci ndaw réew mi mi nga xamante ne mu ngi yëngu ci wàllum énergie te di liggéey ci gouvernement bu njiitu réew Macky Sall di wuyoo ci turu Papa bi tey moom nag la MEDES daal di tàbb mu nekk jëwriñ ji nga xamante ne moo gën a ràññeeku ci entreprise bi nga xamante ne moom lay jiite moom lay jiite directeur général bu Sénélec biile ci fukki ak juróomi ñetteel édition bi nga xamante ne ñu ngi koy teg ci wàllum xarañteef waaye nag résilience économique moom ñu jébbal distinction biile ndax xarañteefam waaye it vision bu mucc ayib bi mu am ci secteur d'activité boobule Papa Mademba Bitèye tànneef bi nga xamante ne moom lañu teg ci ndoddam nekk lu mérito lool ndax gis nañ ne nekk na nit ki nga xamante ne daan na woon yëngu ci wàllu innovation waaye it créativité ci domaine énergie bu muy yëngu Papa Mademba tey jogoon na woon ci lu teel ngir engagé Senelec ci wàllum transformation ngir ñu mën a rentabiliser énergie ci fànn bu nekk ma bi tey ci loolee ba mu jëlee kàddu gi mu daal di sant yàlla bu baax a baax waaye di jaajëfal ki nga xamante ne moom moo ko teg ci bopp Senelec mile njiitu réew ki Sall moom ma Papa bi tey gannaaw réussite biile waaye ñaan na ngir jàmm sax fii ci Sénégal ngir lépp lu ñu mën a sumb ñu daal ko am ci fànn bu nekk waaw Ibrahima Khalil Diémé ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Birahim mu nekkoon 18e édition bu bu corridor atum samedi la ñu ko doon amal mu tukkee ci MEDES mouvement des entreprises euh, sénégalaises d'ailleurs at bu jot nekk na événement bu mag boo xam dañ koy amal peut-être pour mettre euh, li nga xam ne moo di lu jëm ci wàllum entrepreneuriat ci kanam. waaw euh, je pense que am na choix bu ñu mm-hmm. wax muy bu Pape Mademba Bitèye bu bu Senelec Euh, Gongo. Mhm. Euh, je pense que ñu bëri reconnaître nañu ni liggéey bi muy def ci boppu Senelec am na en tout cas euh, jeexital te mhm. c'est positif. Mhm. c'est bien d'accord euh, bravo à lui il le mérite. mais moi je voudrais qu'on revienne un peu sur ces ces cori corridor calebasse d'or euh, d'or chaise d'or micro d'or nangam or. lan mooy finalité bi Euh, j'ai rien contre Mbagnick Diop suuf c'est un grand frère maa ngi ziar bu baax a baax mais lan mooy objectif yooyu la mhm. yooyu la mbir ñuy taxawal mooy pour euh, gën euh, may gëdd jox visibilité mhm. entreprise wala nit ñi nga xam ne ñoo jiite yenn ci ay structure pour gën leen gën a ñeneen ni ñu mën a def peut-être def ba ñu mhm. tabb leen ci wàll boobu ay calebasses ay mm-hmm. nangam nangam or mais la ma ci la ci ñaaw mm-hmm. mooy yenn saay day am plus beneen aspect euh, d'or que or am na neew mu ñëpp la de mais am na loo xam ne aspect d'or bee ci ëpp que or bi mm-hmm. mooy lan euh, neew ma ni c'est le cas par exemple pour le corridor jàpp naa ni baax na Euh, surtout ñu ñu ciy fal ak ñu ñu ciy teg euh, peut-être am nañu benn am nañu lu ñu liggéey moom mi ci boppam di Manick Diop Source am na lu jot a liggéey ci wàll woowu. mais li tax ma ne am na yoo xam ne dóor lay gën a nurool ko ko door mooy table ba di ko fayee table bi par exemple ñu ne leeral day dem bokk ci kuri mhm. nangam wala kalbas nangam wala micro nangam nga fay table bi daanaka euh, njëgu muñ la joxee raaya njëgu raaya ñu lay jox. fay table cinq cent mil mhm. pour dix jox la benn benn trophée boo xamee ni cent mille francs lañ koy jëndee sax ah yow mi organisé boo ci génnee mu doo ci perte parce que di nga ci am ay nit di nga ci fay ay table di nga ci am ay investisseurs yoo xamee ni bu subaan ñu ñëw ne ni waa diw la nañ ko jàppale euh, dóor bi daal nañ koy xaw a wàññi tuuti ba pare li ma ci xaw jaaxal mooy ña ñuy tàbb chaque fois day fekk ñu xaw a jege nguur nag ñu ngi gis ko xam ne day ñëw jaay tableau œuvre daaram ñëw jaay ko ci profité ci jaay ko ci euh, bu ko jaayee ne ni ñu def vente aux enchères alamin ne ni dugal naa cent mille cala ne maa ngi ciy teg trois cent mille keneen ne ni fay naa ci un million mhm. ñu jaay yooyu yëpp waaye la ca ginnaaw est que tableau bi yow mi ko mujjee jënd di ko jël da ngay gis ko ko mujjee jënd mhm. gis nañ ko fi plusieurs fois delloo ko ne leen bon finalement dugalaat naa ko ci mbir pour man dóor nañu c'est bien ñuy kii di tàgg ñenn yi ah di mhm. jox ay raay yooyu mhm. mais nañu wutale door door boobu D apostrophe O ak dóor D O R e. saa yi dóor moom bari na ci moom acca ñu ñu wax ci euh, askan wi nga xam ne ñoo fare ci euh, cité Soprim extension ñoom yëglu nañ ci ndox yu bon yoo xam ne euh, bu yàgg ba tey ñu ngi dëkk ak ñoom mu ñu tukkee nag ci tuyaux yoo xam daal waa ONAS na ñoo ko moom ñoom nag yëglu nañ ci ab sitting la ñu ci amal di ci daal sàkku ñi nga xam ne ñoo di autorité yi ñu daal leen di gestu ndax ñi ngi am xel ñaar ci ay njeexintal yoo xam ne mën na ko andi jàpp ndaw la ñuy teewlu moom mooy délégué quartier bu boobu la diwaan di cité Soprim extension ci micro Ibrahima Khalil Diémé mooy depuis 2002 li ma ko wax depuis 2002 ba léegi ñi ngi fi nekkoon di demander à ce que suñu quartier bi ñu assainir ko assainir ko lan mooy ñu am ñu branché ñu à l'égout booba léegi amuñu ko ñun ñi nga xam ne ñii ay fosse septique yore ay fosse perdue lañ yore ñu gis ne am na benn canal boo xam ne bii ONAS moo ko jël ñëw ci lac bii nga xam ne moom lañ dendee di ko fa déverser déverser bi lac boobu ñu ñu ko ci sotti conséquences yi nag bëri na conséquences yi muy indi bëri na actuellement odeur bi fii ñu toll ñun ñëpp xam nañ ko actuellement xet gi ñu ngi koy jël bu ak bu dul loolu bu timisee yooyu kenn amatul. avec l'hivernage bi di ñëw defe naa ne bu actuellement am nañ problème mais bu bu bu hivernage bi ñëwee defe naa den den gën a am. xale yeeg ñëpp pour loolu nag. mooy li tax ñu indi fii tey mooy canal bii canal bii on donne 48 ñu jëlee ko fi parce que xam nañ li taxoon ñu indi ko fii na ñooñu def ba nu ba ko fii man nañ koo def donc ONAS li ñu koy jox mooy 48 heures na fi dindi tuyau bii mu na na ko dindi bu ko dindee ba noppi nanu dédommagé dédommagement boobu lan la ñun yomb na li ñuy demandé laa yu ñu ko xaalis laa yu ñu ko dara tooñ nañu yàq nañu nan dex gi par exemple mooy lag bi lac bi nan ko désinfecté nan ko désinfecté defaraat ko ba mu baax bu loolu wéyee bu étant donné que ñun laaj ñu ko xaalis xaalis bi mu ñu waroon dem dédommagé na ko jël mu defal ñu ko canalisation waaw xarit Dieng bu baax wax ci kuréel gi nga xam ne moom la ñuy wax association des techniciens supérieurs ak itam manipule imagerie médicale du Sénégal ñoom nag ñu ngi amal ab euh, ndaje doon nañ ko sax ñaari fan lañ ko fas yéene def ca Saly euh, Porte daal loole nag ngir waxtaane lu jëm ci jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi koy daal di am jëm ci wàllum euh, radiopédiatrie bokk na ci nag ci ay services yoo xam ne ñàkk nañu ko jëm ñu jagleel ndaw ñi waaye itam ñàkk radiopédiatre tax na li nga xam ne nag moo wundu ndaje boobu nga xam ñu ngi koy amal jamono ji foofu ca Saly El su Souleye Lo lu ñeel jafe-jafe yooyu mu ci woo jëwrin ji nga xam ne la ñu denk lu jëm ci wàllum wér yaram di Marie Khemesse Ngom Ndiaye ñu teewlu ay kàddu moom El Hadji Souleye Lo ci euh, micro Max Ndiaye ak Babacar Thiel yi dañ fi def ay exposé maanaam ñun en tant que technicien dañuy def ay exposé suñu professeur euh, Aïssatou la euh, dafay def ay yoo xam ne day jëm ci rajo ñuy def ci xale ni ñuy defee rajo si xale dafa wuute ak ni ñuy defee rajo si si mag donc il faut que ñu jàngal la ko nga mën ko maîtriser comme ça nga mën ko def comme il le donc c'est loolu moo loolu moo ñu fi dajale tey. lu matul si liggéey bi d'abord techniciens yi dañ leen war a ci ni ñuy defee rajo si xale te loolu dafa manqué. mën naa wax ni bii séance mooy première séance boo xam ne ñu ngi former technicien yi ci rajo pédiatrie ñun bu ñuy def formation dinañ jaar ci service rajo rajo euh, pédiatrie mais booy bu à la longue xëy na la nga fa jàngoon sax da nga koy fàtte su ko defee nag ñu organiser seen genre séminaire yu mel ni ñu ngi koy doog a organiser pour uniquement radiographie yi ñuy def ci ci xale voilà Omar Ndiaye Babacar Thial ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñoo ñu teewal ca euh, diwaanu Mbour mu nekkoon li nga xam ne moo gënoon a fës euh, ci euh, xibaar yi Cheikh très rapidement balaa ñuy jeexal li nga xam ne moom la ñu mën a moom la ñu mën a jël ci internet bi comme vidéo oui effectivement donc tey ci ci internet bi weekend bi mm-hmm. vraiment am nañ ci ay <coughs> événement yu bëree bëri yoo xamante ne nii xew na ci mm-hmm. am na il y a eu beaucoup de aussi mm-hmm. <laughs> ñu ñu bàyyi la ko def <laughs> Uh-huh. donc beaucoup de célébrités bon célébrités acteurs yi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci film yeeg yu demee noonu donc on a vu que ne ay mariage yu bëri am jot na cee am surtout ci ay maison de production yi xam naa sax euh, dina ci am fii ñoo xamante ni mm-hmm. dinañ leen booleeg maison de production yooyu pour que 2023 ñu bañ cee génn incha allah sinon <laughs> sinon il y une vidéo très viral boo xamante ne ni euh, ci weekend bi euh, jàll na bu baax a baax a baax euh, muy vidéo kii Papa Boy Djiné mhm. di benn lutteur donc vraiment amoon combat le samedi passé mais ñu mujjee woon ko daan mais. Mhm. ci vidéo bi dañoo gis ne avant combat bi. dafa doon dafa dafa doon waat. di tëkku ki nga xam ne nii moom la moom la doon bëreel. et finalement après ñu daan ko daan boo xamante ne daan bu yomb la. Mhm. et ñu bàyyi leen rek ngeen seetaan ko comme ça ñu <laughs> après ñu dellu si waat. musuma waat si làmb. dinaa waat si combat bi barki Seydina Mouhamed barki Seydina Mouhamed barki Seydina Mouhamed déglu leen ma déglu leen barki Seydina Mouhamed laa la giñal si kàttanu yàlla ak mbaaxam bu la neexee ak bu la neexee par force dama lay daan concentré wu fëggi poo jeexalu ko de Mbodj daa jeexal loolu. déedéet lamb ji concentration la laaj Babacar. soo koy bëre. ak appliqué. ko ah, jël ko jël na ko ña ngay bëre. dañuy bëre. ña ngay bëre. papa taanu nga. papa taanu na bàyyi bëre. bëre dañ koy jàng kii jàngul bëre. non même doole. la ilaha illallah muhammad. jàngul bëre Lamine. Lamine même. si lamb. Euh, voilà donc bi la ñu ñëwoon ci vidéo juste pour. Euh, mhm. parce que ci vidéo bi mën nañ am na lu bëri loo xam te ni mën nañ ko cee jàng. c' est pas parce que c' est pas mhm. seulement par rapport ak li mu nekk mbër wala. Mhm. parce que bon mbër mooy mooy bëree di daan comme moom mooy daan waa. mais am na loo xamante ne nii xëy na peut-être nit ñi war nañ cee bàyyi xel te sénégalais da cee gaaw. sénégalais sénégalais tàmm na. bu dugg ci dara pour mu mun ko jox assurance foog mu waat waat baaxul. nit li ngay wax. Euh, bu fekkee dëgg lu ci yow jarul nga ciy waat. nga bàyyi rek noonu mu kii parce que aussi tamit am na yoo xamante ne nii sax di ci dugal yenn yenn kàddu yi sax dafay xaw a euh, am neneen peut-être noo xamante ne ni noonu la ko nit ñi di mhm. gisee mais sénégalais dafa tàmm waat te wax dëgg fa yàlla euh, waat baaxul wala mhm. sax bu fekkee danga koy def sax nga def ko ci anam goo xamante ne ni xëy na peut-être. moo gën a moo gën a yelloo ci ci ci ci ci li nga xam ne mooy dundinu nit mais daal wax dëgg fa yàlla ñu war cee jàng bu baax a baax a baax ci vidéo bi. ñuy bàyyi di tëkku ak di waat te aussi wóolu li nga xam ne nii mooy yàlla te di dem à chaque fois ak xel bu dal. ñëpp Kefat mais en fait ils le font par par conviction. Mhm. mais nag comme ni nga wax euh, man cadre Thiala laay reprendre bi yoon yàlla baax na cest dire que yow dans ta tête tu que di nga dem. Mhm. bon di nga entraîné wu. di nga mhm. def la nga war a def yëpp. mais fois benn faxastalu moo lay daaneel de xam nga papa bay jinne xam naa jinne ko faxastal noonu mais dafa faxastalu de pour man déjà moo ah, ëpp waay. ah, ah engagé na combat dëgg fa neex yàlla. waaw mais grave xam naa ne. yàlla baax na. yàlla baax na daal yàlla baax na yàlla baax na waaw ko daal yàlla baax na. ñu ñu koy masawu mais di ko encouragé également mm-hmm. xam naa ne. Mm-hmm. li muy am ci défaite c'est vrai ah. Euh, bëri na. quatrième défaite consécutif ah non non en fait pas ah. consécutif. Ah, parce que son dernier combat était un combat euh, sans verdict euh, combat bi kenn amul woon ndam ci boobu lépp combat. Mm-hmm. Euh, c'était avec euh, un Andy euh, donc am na huit combats quatre défaites deux deux, deux victoires benn sans verdict donc voilà c'est un c'est une carrière en dents de scie non gën a defaruwaat rek parce que bëri moom da ngay daanu da ngay daan loolu moom waaw waaw mi ngi noonu donc mais sauf que moom sa particularité mooy dafa dafa nekk jëkkëru koo xamante ne nii. Mm-hmm. dañ ko xam bu baax a baax waa ah, nii noonu dafa bu baax baax. moo tax xëy na peut-être mu am euh, benn mm-hmm. kii boobu Ndeye Gueye. ah d'accord waaw la danseuse l'ex danseuse Ndeye Gueye donc euh, mooy mm-hmm. jabaram donc euh, am na. looloo loolu loolu bokk na ci li nga xam ne nii tax na ba nit ñi gën ko xam. gën ko mais aussi nañ ko nañ ko na jàppale na jàppale. si pourtant mi koy jàppale mi koy jàppale mi koy jàppale bu baax sax. na ko gën a jàppale. na ko jàppale nañu. <laughs> day sonn moom moom la ñëpp di xalaat bu bu waaw boo ci na ko sori pendant un mois oh. peut-être fecc yooyu moo koy moo koy dara yàlla baax na <laughs> bu ñu jógee bu ñu jógee ci vidéo bi euh, ñëpp gis nañ ne ci début de <coughs> week-end bi euh, la plupart membre Pastef yu bëri dañ doon def dañ doon euh, def ay affiche le bind ci le 15 juillet donc ñu bëri ñu ngi doon laajte. Mm. Euh, c'est ça ñu bëri ñu doon laajte qu'est-ce qui mm. allait est est dafay am lu bees luy xew et mm. man am naa sax benn cousin sax bi ñu ko duggal dama ko ne waaye yow lan mooy xew mu ne non non yow sa nekk ñun ñoo moom réew mi ma ne ko ah yéen moom nekkate yow investiture président Ousmane Sonko donc le 15 juillet allah à de 15 heures. Euh, donc la ñu nar a la ñu nar a defal li nga xam ne mooy investiture Ousmane Sonko mais dafa mel ni aussi tamit dañoo wax ne c'est la date anniversaire de Ousmane Sonko aussi xaw ma nag ndax si c'est vrai ou pas euh, bon mais en fait c'est un giga meeting j'ai mhm. reçu ça de mhm. de la cellule de communication du du parti mhm. PASTEF euh, qui euh, parle du peuple sénégalais qui investit son son candidat le 15 juillet 2023 Sonko Euh, ci li ñu wax l'espoir de toute une nation qui sera officiellement investie investi. <laughs> par des millions de Sénégalais euh, yu nekk fii ak diaspora euh, à l'occasion dina am ay bracelet bracelet de la libération ça veut dire que mën na bañ a teew mhm. mais ñi Pastef lu ñu wax mooy ñoom ñoo ko fas yéene tabb mhm. en tant que en tant que seen candidat mhm. moment historique ne vous le faites pas raconter en tout cas Euh, noonu la ñu wax ñoom ci seen seen cellule de communication. Mhm. c'est de bonne guerre. c'est ça ah c'est le temps de la politique. Mhm. c'est tout à fait normal léegi. Euh, ça peut faire euh, ça peut faire tilt. c'est ça maanaam lu mu kii. lu mu lu mu indi en tout cas. donc tey ci fajar bi la ñu xam date bi donc mi ngi noonu loolu li ñu indi woon ci li nga xam ne moo nekk ci. internet bi di di leen jox internet bi li ci xewoon bari na mais li ci xew bari na surtout boobu nag uh-huh. ndax gun tëji mën na lijjanti mais mais surtout les mariages mm-hmm. il y a eu beaucoup de mariages ak ñu jógee ñu jógee màkk ak ñu jógee màkk am na ñu jógee màkk surtout vraiment mm-hmm. j'ai vu une photo mm-hmm. vidéo de maître El Hadji Diouf oui ah mu ngi daal vraiment mu ngi noonu waa ci waa mu xaw a j'ai vu une autre vidéo ci sama xarit bi ndeysaan ci looleen ne Eh, Koura Macky ak Mame Diarra a été dama euh, nekkoon na màkk di sañu di suñu xarit wax fa yàlla également moom far mel ni moom wax ma ibaadu sax mais kii la dafa dafa sol kii beneen bi ni nga koy wéyati suñu patron am euh, image nan la tuddati ba ba burka la de. ah burka carrément burka ba. nëbb kii bi takk mais nag kaddu yi moom amul woon benn kar yi moom burkaawu ko dara. Euh, aussi ah, une dernière information aussi mm-hmm. tamit ci weekend bi c'était les délibérations ci ci ñi nga xam ne ñoom ñoo doon defar alors Yacine Seck vraiment yaa ngi seetaan mm-hmm. table bi dañ koy defar nga dégg su muy laaj ana bi table bi pare na sax dañ koy defaraat noonu voilà Yacine Seck euh, bu daan dina la dàq table bi dañ koy defar Yacine Seck mu ngi foofu Sen TV ñu ngi ko si bu baax ñoom pare nañ war nañ bi ngay na mu nekk ci téléphone am dañu ñu table bi donc je veux vraiment te suba tu verras la table inch'Allah comme ça tu auras plus de possibilités de bien nous regarder et de voir nu peu ce qui se passe <laughs> ñu koy nuyu bu baax table bi c'est très moom en fait ko dàq lay wut sax. mercato dafa mel ni loolu la eh, uh-huh. mm-hmm. eh, mercato bi la ñu nekk avant le début du championnat. juste rappeler avant di tëj rek. surtout ñu ñu desandi ci li nga xam ne mooy résultat bac yi nga xam ne nii moom moo. commencé depuis samedi mais des uh-huh. résultats vraiment. Euh, des résultats yu yu yu doy waar. yu doy waar mais Ndande am na am na une fille. je sais pas comme waaw y' a une fille Yacine Fall mais effectivement Yacine Fall. Elle a été la meilleure élève euh, il y a trois ans. Mm. Euh, au BFM mhm. et qui a décroché son bac S2 avec la mention très bien, mais avec quand même des moyennes à, à dépasser. Mhm. Des, des, oui, des, des moyennes euh, extraordinaires. macha allah mhm. ñu ngi koy féliciter Yacine. di ko ñaanal ko bi ci gën a ndaw 17 la de. 10 wax mi ngi en ah. mathématiques. vraiment dans toutes les autres ah, matières. ah, ah oui elle a eu 18. 17 18 vraiment macha allah moom vraiment. waa këram papaam ak yaayam vraiment ils ont de quoi être fiers mais dafa am benn résultat boo xam te ne man dama Mbacké mooy euh, lycée de Ngas oui Yacine effectivement Yacine la elle a été meilleure élève du Sénégal au BFM il y a trois ans et cette année uh-huh. elle revient encore mais avec beaucoup plus de force avec une uh-huh. moyenne vraiment euh, astronomique macha allah uh-huh. euh, vraiment ay moyens yu baax la am ci bac bi ñu ngi koy féliciter di ko ñaanal bu baax a baax a baax te di wax di bàyyiloo xel état Sénégal yu mel suñu cerveau yu mel nii ñu bañ ñoo rëcc parce que amoon nañu benn cas lu yàggul dara. te euh, bon dañuy bañ pour bañ pour ne pour ne pas citer tur bi mais ñu encadrer leen parce que suite bi après dafay am solo bu baax a baax a baax ñu suñu élèves yi nga xam ne macha allah yàlla may na leen. ñu am encadrement boo xamante ne nii dinañu mën a nekk ci cadre boo xamante ne nii du tax après bu ëllëgee ñuy nekk ci ay mbir yoo xamante ne kenn doo doo comprendre mais benn résultat yi laa bëgg a mhm. mooy le lycée de Vescop à Diourbel mhm. lycée bi il y a eu 111 candidats 6 admis d'office et 43 admissibles euh, 16 candidats 0 admis d'office et 7 admissibles pour euh, L1, mais mm -hmm. L2, 111 candidats, 6 admis d'office, 43 admissibles. Et, et pour L2, 50 euh, candidats, 5 admis d'office et 18 admissibles. Donc, euh, mu nekk ay résultats yoo xamante ne nii ci yeneen école yi mën nga ko gis. C'est la proclamation du président du jury. <laughs> mais bon c'est perdu. mi ngi xaar en tout cas yeneen résultats yi voilà. et préciser que <laughs> tey aussi tamit le examen BTI mhm. foog BFM suba mardi je pense le 11 bi. mi ngi noonu examen PT e, je pense que tey rek. xëy na ba ma juumul. mais BFM bi c'est semaine bi lay doon wala semaine. BFM je pense demain ou mi ngi donc ñi ngi souhaiter bonne chance à tous les candidats du BFM. Mm-hmm. du courage à ceux qui vraiment qui n'ont pas démérité et euh, qui peut-être feront le second tour pour le bac et félicitations à tous ceux qui ont décroché le bac avec mention mm-hmm. ou passable. yaakaar man maa ngi xaar résultat sama rakk Ndeye Khoudia donc dina baax mm-hmm. incha allah. allah voilà donc Ibrahima ñu bàyyi la nga tàggatoo ba demain incha allah. waaw maa tàggatoo euh, ba suba incha allah di ñaan suñu borom mu may jàmm te jàmmal ñu te euh, euh, table bi yaa suba ñu teg ko fii ndax. parce que vraiment ni may commencé sonal ci beneen wàllu wale te ngeen yam ku nekk na yem sa télé. ma toog seetaan sa télé. amiin bu fekkee yore nga da ngay ñëw vraiment Aïcha Diaby ci 7TV. waaw ah, Yacine Seck ci Sen TV. di nuyu ñëpp di ziare ñëpp. Mm-hmm. Euh, am na ay yóbbante mais xam naa après suñu génnee ci plateau bi yóbbante yi allah dinaa ko. dinaa ko incha allah. acca <laughs> Cheikh Adama incha allah. léegi noonu donc ñu jox dig daje suba incha allah et incha allah dinañu indi rubrique euh, économique suba incha allah avec euh, on parlera de la dette incha allah. ak koo xamante ne xam màcc na ci bu baax a baax a baax. incha allah d'accord allah. léegi bonne journée rek la may may foofu rek nga koy yemale. Eh, oh. voilà merci Cheikh Dia ah. Cheikh tey nag 10 minutes Senghor yow yaa ko am tey. ñaareel ah, dafa am information ñu ngi dugg moo tax. leeral point net nee na baba Babacar ngoom sera candidate aux élections présidentielles. on a parlé de leadership féminin donc. ñu ngi génn nag il faudrait que naa fexe invité ko sax ci politiquement correct. il faut naa politiquement correct moom mais mais également son papa. Mm-hmm. Babacar Ngom jiite Sedima tamit capitaine euh, d'industrie la bokk vraiment euh, jàmbaar la vraiment. koy ziar bu baax. voilà Cheikh. jeexal nga. waaw waaw ñu joxe dig daje rek ba suba incha allah ba demain merci jaajëfal leen également yéen ñi nga xam ne ci suba ba tey yéen a ñuy topp moo wala ci rajo bi wala ci Facebook di jaajëfal jaajëfal également ñi nga xam ne nekkoon ci wàllum xarale gi équipe technique bi jàpp ci mbiri ba lépp yem bi ñu ngi di jaajafal bu baax a baax jox leen dig daje demain incha allah même heure à partir de 7 heures excellente journée à tous et bonne suite des programmes I am.